وسلام على المرسلين Dia délégué son directeur muy El ak son attaché Madaw Sow ma ñëw fi taxawal fi gouvernement bi ànd ak su may adjoint Moustapha Kane Wagan Faye ak su may chef de service ñëw fi su a ah, ni defee woon daaw ak daaw jéeg ñëw tey ci Medina ànd itam a ah, maire dëkk bi Diop ak délégation ñëw fii pour jaare sëriñ bi jaare waa këram jaare taalibe yi te itam di feddali kóllëre yi nekk ci diggante président Senghor El Hadj Ibrahima Niass boobu diggante ëmpu leen ndax ci tàng yi paase rek xam ngeen ne président Senghor ci Ndakaaru jox ko médaille bi gën a ci médaille pour wan ko ne waaw maa ngi nuyu ci yéen tudd suñu président bu mag bi nga xam ne kontaan nañ bu baax itam ñëw bi ngeen ñëw fekke nañu suñu bés bi nga xam ne bés bu mag la ñu mooy bés bi ñuy fàttalikoo di di yonent bi nga xam ne moo ñu indi yéen daaw doole la parti bi nga xam ne moo samp gouvernement bi fal ak doole lislaam bi nga xam ne moo di leen diine yaari doole yooyu benn tëral ji lu yàq sa morom lislaam tëral dara lu yàq dara ji gouvernement bépp jullit boo xam ne def na dara lu yàq dara ji gouvernement awut ci yoonu lislaam gouvernement bi itam tëralul dara luy yàq lislaam bépp fonctionnaire bu def dara luy yàq dara ci lislaam ko ci ndigal gouvernement bi dafa ko ci ndigal président yaar yëpp lañ yoo xam ne mën nañoo ànd mën nañoo dimbalante lislaam mën naa dimbale gouvernement gouvernement mën naa dimbale lislaam te suñ dimbalante loolu mooy yóbbu Sénégal ci fa nga xam ne fa lañ bëgg mu àgg ko te ki nga xam ne moo amee kattan gi mooy doxal xatte yi mooy képp koo xam sa moo la koy moo lay dimbale ba nga jot ci gouvernement boobu mën naa dimbale lislaam lislaam itam mën na koo dimbale te war nañoo dimbalante itam ñu jullit ñi dimbalee gouvernement mooy ñu topp seen diine nañ ko santaane te topp seen diine topp gouvernement ci la bokk liggéey buñ toppee yàlla ba noppi ñu liggéey suñ liggéeyee dinañ am lu ñu wéyee ko defee réew mi nekk ci jàmm wax naa ne lislaam dara luy yàq gouvernement nekku naa ko bépp jullit boo xam ne yaa ngi xaw fekkee ni citoyen nga nekk citoyen ba gën a baax su fekkee fonctionnaire nga da nga nekk fonctionnaire bu ñu wóolu su fekkee nekk nekk nga ci parlement da nga nekk député bu jub soo dee ministère noonu su fekkee nag ni nit doon a jullit ba noppi lu gisul ci moom njub googu kon du ci lislaam la ko jële ci boppam rek la ko jële maa ngi gërëm président bi yoonu ñaareel président bi ba mu fi nekkee ba tey dafay dimbale jullit yi dafay dimbale sëriñ yi dafay teral sëriñ yi bu man rek moo leen sëriñ yëpp daf leen di dimbale daf leen di teral te loolu ñëpp jaral nañu moom gouverneur nekk ni xew-xew bi xew ci Dakar ci weeru paase rek wane na ko war na ci Dakaaru jox ma médaille gën a màgg ci médaille Sénégal liggéey na ko mukk du jar loolu boobu teranga te it sama giir dund yaakaar naa ne mënu ko fay itam teranga wax def na ko ngir lan def na ko rek ngir yéen mbooloo mi yëpp la ko terale mun ku ne ci yéen mu def ci dënnam loolu te man mi ci seen bopp mu terale ko liggéey ndax bëgg a toxal xaj arab yi yóbbu ko ci kanisa boo xam ne tabax na ko ca yaman ba muy ñëw makka dafa mbëru ba nga xam ne xare bi doon toj si makka ay ñëw rek lañu war réew mum romb buñ defee ne makka la jëm rek ñu dogandu ko di ko tiinu ne ko bul def loolu mu jàppalu buur ba ak ay ministre am yépp boole ci ceen ne nañ leen tëjaale ci kaso ba mu wañee ko soo wax seen wax seen fetteerlu ba ñëw ba jub màkka de ba mu ñëwee ba jub màkka xareem bi gis gëlëmi abdul mutalib ñu kippaamu ba rek daal di ko jël téeméeri gëlëmi abdul mutalib abdul mutalib itam daal di war gëlëmam rek ñëw fekk si abraha de ëllëg rek la war a dugg màkka pour toj kaaba gi ba mu ko séenee rek abdul mutalib ku am jëmbale woon mu daal di ko màggal ci xolam ne kii di ñëw rafetul ci man ma toog ci kaw lal moo mu toog ci suuf te man itam du rafet ci man mu ci kaw ma toog ci suuf kon nag mu feneen ma na ngeen ma defal ndëstal leen def leen ñaari ndëstal mu toog ci benn bi ma toog ci benn bi ñu def noonu ngir màggal gu màggal jëmmi Abdul Mutalib mu ne ko loo doon dox ndax bokk nga ñi nga xam ne mën nañoo wax ci kanam buur mu ne ko waaw man day li ma tax a jóg leen rek la jàpp nañu samay gëléem ma bëgg rek nga delloo nga til ma ci samay gëlëm de mu ne ko bi nga wax agut ni ma la màggalee waaye bi nga waxee xeeb naa la makka gi nga xam ne mooy seen karaaga kaaba gi nga xam ne mooy xajukaayam arab yëpp ma fasoo koo toj ëllëg tinu ma foofu xanaa di ma tinu ay gëlëm ba nga wax agut day màggal naa la waaye bi nga waxee xeeb naa la rek man néeg ba am na borom man moomuma ko mu ne ko fabal say gëlëm ne jox leen ko ñaar téeméeri gëlëm bu ma tojee makka danaa ci jotaat de abdul mutalib moom dem ak gëlëm moom de ba mu ñëwee mu ne yow yàlla góor gu nekk yaa ngay jéem a xaar sa kër yow nag sa kër yi waaye yaa ngi ñëw si ne ne dana ko toj si ëllëg de fi ñu taxaw noonu rek ñoom wax makka nekk ci jàqare ñu gis ay picc yoo xam ne ñu ngi toll ni këdër bët def ay lëngeeli lëngeel naaw ci makka ñuy wax naa yi picc day ba makka sosoo ba tey mosuñu ko gis picc mu ci nekk ma nga ngëb ñaari xeer ci diggante ay ay wexam sex benn ci gémmiñam de ñu naaw rek tiim xareel abrahata ba gannaaw boo xamee ne génneemam jum war lànk na ne dootu dem de su dàqee jëm makka rek mu bañ goor lu mu ko bugal bugal lu mu làng su ko daaxee jëmale yaman mu cal mu def ko ay yoon yoon yàlla wax loo sax gëlëm nga ñëy wa ñëy wa ne ko naka laay demee te yaa ngi taxaw ci sama kanam bonte weñ gu ñuul ne su may seq jéego rek ñu xalaat ma rek foofu la picc yaa see taw ci seen kaw xer yooyu xeer ku ci nekk xeer a ngi dal ci sa digg bopp génn ci sa mbuñ kam ñeewa nga waram rek ak saw ñee yëpp ngeen ñibbi àllaaxira rek noonu la yàlla alagee xareb abrahata ba de waa makka déglu déglu déggatuñu dégg ca xare ba lu bokk ca xare ba abdul mutalib ne abdou manaaf doomam mooy abou taalib waral fas nga dem seetali ma lu xew ci xareb borom ñay mu dem dem dem dem dem yàgg lool ñu ne yàgg na de boo gisee ku ñëw ni mu yàgg rek am na xabaar de ba muy dellu si nag mu dawal xasam ba jub Makka def nii firi ñaari tànkam noonu la yaaram di si ñaaree ne ne lim doon dox jub na firi ñaari tànkam Abdul Mutalib ne leen ci day yoonam wi am na ci manoore lay wone mu agsi nag ne leen xare ba ñëpp la yàlla alagee xare abraata be juróom fukki fan lañ ca teg yonent bi juddu sallallahu alayhi wa moo tax me xat mi yonent juddu ci lañ xarak xaret ñay ya ca la iwaanu Kisra màbb toj fukki toj toj ak ñanant fukki tuur ak ñanant rës ca at ma yonent juddoo bés ba yonent juddoo laay wax safara Kisra ci la fay wi ñu doon jaamu bañ yàlla bés bi yonent juddoo ci la booy retu saawa ñiis ci la xërëmi àddina yépp jattu ci la lali buur yi àddina yépp bëpp de buur yépp fanaan ci suuf ba nga xamee ne yonent bi judd na sallallahu alayhi wa sallam aminatu yaayam nampal na ko suwaybatu nampal na ko suwaybatu jëbeeram abu lahab la woon xalimatu saadiya nampal na ko juróom-ñaari jànq yoo xam ne ku ci nekk xaatikatu la tudd nampal nañ ko de jànq du am soow xam nga ne waaye jànq yooyu dañoo gis yonent rek sopp ko daal ko jox seen ween mu nampa rek soow bopp bi ci gémmiñam de soowam njànq kenn mësu ko namp ci àddina lu ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax daana ko fukkaree daana wax maay doomi jànq yi de ba loolu amee nag ñu jébbal ko alimatu saadiya pour mu yóbbu ko taayif nampal ko fa ndax makka dafa tàng te dafa bëri ay feebar booba namp na fa ci at mooma la yàlla def xalimatu saadiya gàttam yi làppoon ak gëléemam yi yépp duufaat am soow saxla ci taayif ñaari at ak ñaari weer ba ma amee ñaari at la aliwatu dellu si makka di ko delloo yaayam ne ko mag naa fer de waaye dama bëgg nga bàyyi ma ko ndax makka dafa bëri feebar te dafa bëri mbas mu ne ko yóbbu ko ba mu xamee ñaari at ak ñaari weer <coughs> ca la ko malaaka yi jëkk a feeñu xotti xolam bi xotti gu njëkk gi rek bañ xottee xol bi alimatu ragal rek bon nag wala man dama doon namtal te xàppab namtal bi jeex na daal yàlla suturaal na ma ji naa ko delloo rek balaa jël dara xew de daal di ko delloo yaayam la yaayam ne ko lu tax nga delloo si ko teew yaa xeroon ci mu des ci sa loxo mu ne ko dara nampal lañ waxoon rek nampal jeex na mu mu ne ko ah, ah, ah, Aminata ne ko du noonu rek mu ne ko dama ragal ne sa doom ji jinne daf koy bëgg a jàpp de ndax yi mu wax ne moom lay gis daal man wóoruwuma ko de mu ne ko ngay ragal jinne gi sama doom ji mu ne ko waaw mu ne ko kii du doom ji jinne jàpp de sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko de yaayam ameel ko ba ma yaayam dama amee ñeenti at wala juróom benn yaayam génn àddina de sallallahu alayhi wa sallam ndeyam deena baayam deena Abdul Mutalib maamam ju góor amee ko ba mu xamee juróom ñeenti at Abdul Mutalib itam dee ñu jox ko nag Abu Taalib ki nga ne mooy baayam magi baayam de taaw Abu Taalib nag moo yar yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam ba mu amee fukki at ak ñaar la Abu Taalib di ànd ak moom bëgg a dem Saam la ñu gis Bahira benn labbe mu wàññi ko de ak ku ñu wax Nastora ne leen bii ko de bu leen génn ak moom ndax yahood ñu xañaan lañ te kii li ne ci moom na buut kenn bu ko yahood yi gis rek dañ xam ne mooy yonent bi nga xam ne moo des ci mu jël jamono de ne Abdul ne Abu Talib wàññeeku la moom day yonent wàññeeku ak moom sallallahu alayhi wa sallam ci fukki atam ñaar ci fukki atam juróom-ñaar ci la xilful fu dool xew xilful ay góor ñu daje fasante wala xam ne dafa nañ ko ñi xeex ba dindi ko xam ne mooy li yi di def léegi bañ ko defee yonent fekke bokk na ci sallallahu alayhi wa fukki atam juróom-ñaar ci ñaar fukki atam ak juróom ci la takk jabaram xadijatu de ci fanweeri atam ak juróom ci lañ tabax kaaba gi xëccoo ci hajarul aswad ñu daje ci ne baabu salaam bii ku fu jëkk a jëkk a nañ ko jox hajarul aswad rek xam ne moom la ko yàlla jox de yonentu jëkk faa ñëw de ñu ne ko daa waaye lu jiitu wayu gi sax ndax ñoom ñëpp moom lañu woon woon rek ndax jikko mi mat sallallahu alayhi wa ñu ne ko dañ dañoo àtteloo woon yàlla ne ku jëkka ñëw ci bàyyi ko ji baabu salaam moo war a teg xajarul aswad ci palaasam bi léegi nag yow la yàlla tànn te ñun ñëpp gërëm nañ la yonente ne waaye man danaa def lu seeta xolab ñëpp dal di lal malaanam teg teg dañ wa jëddig malaan ma ne ñeenti koñ la giir gu ne nañ mu jox kom njaay su demee traité bu ñëwee rek lu mu ca am ñu takkal ko jabar de noo ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ci xadijatu ne ko dama bëgg nga jox moom njaay ma jaayal wéere xadijatu sawar ca lool ndax xadijatu dafa mas a gént weer daanu ci makka daanu ci néegam daanu ci kaw lalam ba tegu ci kaw ay luppam mu laaj ko war a xatam ibnu nawfal firi firikatu géwént mu ne ko su géwént gi dëggoo yonent bi nga xam ne yàlla dina ko yónni mooy da sa jëkkër moo tax xadijatu bàyyi woon xelam ci loolu kum dégg ci yow mel yi rek dana ñëw nattu la ba xam ndax danga mat ab yonentam déet bañ xabaar bi kër koo ne ko jiddima abi taalib bi day ragal yàlla ak dëggu àddina ak bëri kersa yooyu yàtt ko mooy jikkoom de mu ne yooyu day tànnee fi jikko lañ di toppatu mbiram nag ba yonantu fa ñëwal boppam ne ko jox moom njaay de mu sawar ca lool daal di ko jox njaay boole ko gone ak jaamam gu ñuy wax may farata ne ko xantal ak yonantu bi boole bu ma daal dara lu may nga di ko liggéeyal te loo gis ci moom loo xam ne xar baaxoo rek nag ma ko bind de may farata mënoon naa bind ñu génn sëf seen marchandise génn màkka ànd ak traitang yi ñu jeex di dox gis nga réew yi jaas nim jafee ker ñuy dox di dox di dox ba digg ba cëg ñu àgg ci garab goo xam ne am na ker gu yaa naa ko def xaafila ba jëkkante ko ku ne lal ca ker ga de yonentu soo ba agsi amut fu mu toog ca ker ga mu gaar lu gaar lu ñu xajal ko ñu bañ koo xajal mu lal ca naaj wa kerte mi ñorat occ nit ña faj nekkoon ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu la may sara du jëkk a gis mu bind ko xadijatu de ba nga xamee ne àgg nañ saam ah mu toog ci ron garab ci aw niiram mu ne leen kale day yonente bi mu ne garab gale noonu lañ ak ah, kenn du fa toog ci ronam lu mooy ab yonent de te kenn mës la garab gale bay bis ni tey rek waaye jële toog garab gale ab yonent la def te teg ca gis leen niir yi nga xam ne ñu koy xaram bayra bañ àggee ci dëkkam moom it benn labbe la bayra daal di invité ba mu seeni niir niir wi di xaral yonent aw niir la woon woo xam ne mi ngi fukki xasab ñaar guddee fukki xasab ak ñaar di tiim bopp bi yonent bi fukki xasab ak ñaar bu naaj tàngee rek niir woowu ñëw tiim tiim yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ba ko Bahira séenee rek daal di ne bi ci penc mi invité naa leen añ yéen ñëpp ñëw leen añ ci sama kër de waaye bu kenn des nag yéen ñëpp ñëw leen ba xamee ne dem di hoy ji nag ñu ne yonent yow des fi wattul ñu bagage yi waaw dañ ñoo invité de yonent toog di wattu bagage ak ñoom ñu ñëw bay raaseer leen ne leen ah ni ngeen day dama ne bu kenn des ci yéen na ñëpp ñëw ñu ne ko ñun ñëpp ñëw nañ mu ne déedéet ñu ko ñëpp ñëw mu ne déedéet ñu ne ko suñ benn xalel rek moo des kooku fa ñuy ba suñ bagaas rek déedéet mu ne xalel boobu na ñëw laa yàgg ngeen fay jaar mosuma ne ne invité waaye xale boobu kat mooy weeru bagar ci yéen bu faddoo rek lëndëm rek ay des ñuy xooy yonent bi nag mu ñëw mu ganale leen mën a leen gan lool moom bayra ne ku ko ci gën a jege ci mbooloo mi ñu ne Abu mu xoo Abu Talib ne ko dama am yowndee yow wéet ak moom ne ko xale bi ku ko jut mu ne ko man mu ne ko déedéet fii xaleel bàyyam dundut mukk mu ne ko maa ko jur ndax sama doomu bàyyi jur mu ne ko loolu laa nangu waaye moom bàyyam dundul ne ko xale bii dina ci moom na buul kenn ku jàng téere jëkk yi te yahut xam nga ni añaane xam nañ génn ak yonent bi ci xaram xam nañ ne bés ni tey waa ji yàlla fa soo yónni dana wàcc ci dëkk bii tey yahut yépp a ngi ci ko wut rek bëgg ko yongaan fa rey ko rek moom foofu rek juróom benn yahut ne ñoxos ci kaw bayraa mu ne leen lu ngeen di dox ñu ko yonent bi jógee xaram dana ñëw ci dëkk bii tey moom lañu bëgg a gis ndax ñu rey ko rek mu ne lu tax leen di ko rey ñu ne ko ndax bëgguñ ak yonent toxoo ci yahood jëm ci ñu dul yahood te moom du du moom duul yahood de arab la mu ne dama leen di laaj mbir moo xam ne yàllaa ko nam ma façon mu xam mën ngeen koo fal waaw ah, ñu ne déedéet mu ne su fekkee ni yàlla na mu ko def yonent nag su ngeen rawee bakkanam jaamur tooñu ñu ne ah, kay mu ne leen dem leen ñibbi yéen ngeen di forantu rek ñooñu daal di wàññeeku mu ne Abi Taalib li ma la waxoon nañu nii wàññeeku nag sa doom ji ñibbi makk kii kenn war daan da nga tukki ne dama dem ñibbi li nekk ci moom nëbbuwut kenn mi ngi mel ni jantam njoloor rek yonente wàññeeku sallallahu alayhi wa sallam dellu loolu ci atam ñaar la ci atam ñaar fukkeelam mag juróom nag la delluwaat saam di terati pour xadijatu ne am fa ñaar fukki ñaar weer ak ñaar fukki fan soo ko dellu si de bés ba muy dellu si may farata bind ko xadijata xadijata dafa samp ay drapeau ci mbedd mi yonent yi jaar ñibbi si invité waa Makka yépp añ ca këram yonent ñëw jëbbale njaam dem nag toog sallallahu alayhi toog dit bu yàgg mbokkam yi ne ko demal ci xadijata mu fay la bi yonent ñëw na bu ñëwee ba jub xadijatu rek rus ko wax ne fay mu wàññeeku ba def ko ay yoon bàyyam yi nag dal di ko xiisalal wax nag ne ko tey daal na nga def na nga dem xadijatu na la fay de te bu fi ñëw te fayul la yonent ñëw nag sallallahu alayhi ba mu ñëwee daal ci xadijata mu taxaw wan ko gannaaw ne ko sama mbokk yi ne nga fay ma li ma la doon liggéeyal mu ne ko ah waaw looy defe tey mu ne ko dañ ne dañ maa bëgg a wutal jabar mu ne ko terati benn yoon ñibbi si rek nit mën na ca am loo takk jabar ak loo sampe kër moom la terata ma na ko ca mu ne ko loolu lañ wax mu ne ko bu fekkee jabar rek man gis naa jigéen joo xam ne ju rafet la ju réy askan la ku bëri alal la mag la nag ci at soo ko bëggee rek man mën naa la ko labatal loo gisoon da nga ko am mu ne ma dem wax loolu samay mbokk yonent bi ñëw wax loolu ay mbokkam ñu mer ah mbaatu Xadija daal la mu ju bëri jee ko nag ba muy wax suñ doom naa ko mu wutal ko jabari màggat ñëw àtt si ko xuloo mu ne leen déedéet man de sama bopp gaaral su fekkee bëgg na man danaa sëy ak moom la Banu Haasim nag ak Quraysh yépp sax ju xam jabar ji bokk ci Banu Maxsum de de Xadijatu bu fekkee xadis yooyu daal yonent bi ñëw sallallahu alayhi wa ne ko samay mbokk nangu nañ de xadija tey itam ay mbokkam yépp nangu lu may baayam baayam boobu moom def lan baay bi mukk moom lu may yonent jabar de sallallahu alayhi wa sallam xadija dina yonent yabaral say labarkat rek ñi takk si nañ ñëw daal loj jëleen yax waa këram ak baayam ñu lekk ba suur mu nanda leen sangara boobu sangara xaraamagut ñu naan baayam naan ba mandi mu solal ko mbubu mu xees daal di ko ne Abdullahi mi nga xam ne biñ ko pe lëng na la moo ñaan loo ci wax mu ne ko d'accord na may naa mu ne ko bindal signé mu bind signé jox Xadijatu Xadijatu yónnee ne ñi ñaan si ñëw ñi ñaan si ñëw Sidina Abubakar ci la àndoon ak Abu Talib Abu Talib moo doon xutba Abu Talib ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo leen boole ci ngir gërëm Mahdi ibnu Adnan te def leen ñuy jubbi mu te def seen doom ji nga xam ne mooy Muhammad ibnu Abdullahi muy waa ji nga xam ne xamut kuñ koy peeseet ci àddina lu mooy lëng na la ci ngëneel ne di lee ku néew xalal la itam xalal nag du dara ker la rek boo xam ne dafay ñëw ak a toxu def te wóor na ma ne mbiram dana feeñ lu yàgg-yàgg waaye yii dana dikkam bit moo xam ne ñëpp danañ ca seen bëcc seen bët de mooy labat xadijatu bint xuwaylid sale na ko ñaar fukki tëngi gëlëm ak fukki dollar takk say ba yaay bàyyi xadijatu xiqi ca sàngara sax fekk xadijatu ngi laj gëlëm yi du jaax jëgéeram yépp mu xadd leen yére yu xees sant leen nag ñuy fecc moo tax ba tey fecc ci céet dagan na ak tëgg ndëndëg ñuy tëgg di fecc di xàtt yonent bi de na ko ndax lii xaay na mu ne xaay na lu may lu may ci fii seen bii daal moom xaayu na ko def sallallahu alayhi wa sallam bàyyi xadijatu sogo xiki ca sàngara sa nag ne lu xew ñu ne ko Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib moo takk sa doom xadijatu de mu ne mukk du ma ko may jabar xadijatu génne ko mbindam ne ko yaa bind lii signé ko soo waxee lu wuuteeg li nga bind signé ko rek ku lay si yëpp daañ daje ci ne da ngaa dof mu ne bon nangu naa mu ne ko gisoo mbubb mi nga sol sax du moo la ko solal yaaram dañuy def boo takkee doomi nit jox ko mbubb mu sol mun ne bon nangu naa noonu la nangoo booba yonent di see xadijata yonent ñaar fukki at ak juróom la am xadijatu booba am na ñeneen fukki at sëy naa ak yaari jëkkat jëkkoon naa see ak atiq jëkkoon naa sëy ak xaalata xaalata moo jur jëkkoon naa sëy ak hind moo jur xaalata ak xaaris xaaris jirim yooyu nga xam ne yonent leen yar tey ci ñoom la fa amal yatima fala taqhar ci ñoom la wàcce gidim yooyu abu xadijatu jur te yonentu yar leen jëkkëram yu jëkk yooyu ñoo ko juróon de ak hind de xaada la ci jigéeni Quraysh ak jigéen ñu bari sax bu xasee làq ñeen fukki at dootu am doom de jigéen néew na mu am ñeen fukki at ak juróom gannaaw ba muy amati doom waaye xadijatu yonent ko takk ci ñeen fukki atam te moo jur doomam yépp lu mooy Ibrahim xadijatu moo jur xaasim taaw yonent bu góor moo jud abdoulahi abdoulahi mooy tayib mooy taahir fole siyeer yu bari danañ juum foofu def tayib muy doom def taahir muy doom mel ni yonent am na juróom-ñetti doom fekk du noonu tayib ak taahir yëpp mooy abdoulahi rek benn doom bi ñaari doom yu góor yooyu xadijatu moo jur moo jut itam zeynabu mooy taawam bu jigéen moo jut itam ruqayatu moo jut itam ummu kulthum moo jur Faatimatu ki nga xam ne mooy sangab jigéen ñi ni yonent doyee sangab góor ñi de sallallahu alayhi wa sallam Alfayda FM jigéen yi wax nañ ci ñaari yëpp xam naa yoon ba nga xam ne moom yëpp dañ doon jënd matt waaye moom dafa naay benn ñëw da jënd matt fay taxamali boppam te doom yi wóor na jabarit wóor la woon ndax ab dolaat ci kay fay ma xëy la bokkoon itam lañ loolu tax yàlla xase ko nanu katab matt bi wala dafa bañ a ñëwoon bi ñu boo ko yëg mooy garam jéggi sama mbuur di ko def ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu gënoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mën a am daal ba faaru wàccee xas ko mu mer lool ne ñu ne di xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daa wax seet leen yi nga xam ne moom sama Quraysh di xas ñoom bu ñuy xas yonent bañ nañ yonent bi tudd Muhammadam yi sax xañaane ko Moussa moom lañ koy wax mu ne mu ñoom Moussa moom la ñuy xas dama moom laa tuddee moo tax xas yu bari bari benn laalu ci Mouhamad Moussa moom la ñuy xas sama Mouhamad la yàlla def nag mu tëmbët toj mais moom tey ma toj boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëwal si yonent fi mu toogal si dina Abubakar yonent na si dina Abubakar na yonent ay amul ay nga làpp rek ndax ci ku ñaaw la miñ la ku bon bëgguma daal nga dégg li nga xam ne moom lay wax yonent ko du ma mu ne ko du la mu ne ko déedéet yàlla wax na ne da xaratul quraan jaal na daal ko benn laay umu bi daal day jaaban mastuuran umu jamin ñëw romb yonent ñëw taxaw ci Baabakar na ko ana sa su ma ko gisoon tey ma toj boppam de mu di xas te xam ne man maa ko dàqa way man man gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko sëriñ wax na mu dëdd ko gisul yonent bi sallallahu ko bëri si a naka mu ne ko gisul moom mu ne loolu mu jant yi dëddee dojam de xam nga loo koy kooku itam yàlla seet dojam boobu de Abu Jahl ibnu Hishaam so na loosu kuréel gi ren Abu Jahl ibnu Hishaam noonu na julli du xew ci Makka mukk sama nekk fi Muhammad lu ne mën na koo def lu mooy julleeg jàng alxuraan ci Makka su ko defee rek ma toj boppam de yonent dégg ko mer ca këtam bee ba muy dem ci jàkka ja jaarul buntu ba dafa yëg tappat ba ci féeri ci jàkka ja rek dal di kappar ci kanam Abu Jahl ibnu Hishaam presi yëpp ñëw ne ñu ngi seetaan si di su Abu Jahl na ne Muhammad jëlee mu ko Muhammad nga mer bee dugg ci aw sax ci yoon dafa yëg kapat bi rek te tëri ci jàkka ji ruugoon Abu ne kaw ba kabare rek Abu Jahl jëm ci moom ba jub ko rek nga dëpp ne ko lan la Abul Hakam ñoo day gis naa lu doo gis ci loo xam ne nga nga naa mu koy ma nga koy teg ci ñaaxul lu baax mi ngi ko teg ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musuma gis lu rëy nii waaye loo xam nga ak pour rek te daal ne ma soo jege rek ma di la wan rek moo tax ma daw rek ah yonent ne daaka Jibril su jege wax rek mu ne du ca daal lu ne naa ko ko lu jàng jàng daal du am ci alxuraan moom la yàlla wax naa wala yàlla naa di yow sama sa bànneex na xool ñoom seen jëmm na ñooñ makka yëpp màcc yëpp waxambaane teew suñu makka yëpp dana ko fees rek waxambaane teew moom ma jàngee rek ma sakkal su fexe rek yéen su ma su ma gaa su ma jaarlu woon a ci gannaaw bi jaana ma dëgg ñu jaar ñu rek dëkk bu dee moom Abu Jaal waaye daal moom Abu Jaal dayut dayut dayut boo yàlla jàpp ko te xare Badar de fa lañ ko rendee ko jaar gisoon na loolu su kuréel gi rek yoon benn waay boo xam ne mu nga dëkk ci araas yi benn araas yi boo xam ne jaaykati coggal la woon ñëw na di jaay coggalam Abu Jahl leb yëpp dàq yóbbu ci gëdëm di rey di lekk ba mu jeex tag xàpp bañ xàpp woon jot mu ñëw ne ko fay mu ne ko fay xanaa xamuloo ne man du ma fay bon ah bu ñu ko doon mujj pexe rek ñu ne ko amul pexe maa moom makka diggante yaare ko ji te ne maanaam amul kenn kuy teg baat te lekk naa lekk naa ko du ma la fay amul kenn ku ci man dara demal ah si ba jaaxle lool ñëw fekk mbooloo si waa makka ne leen ndax amul kenn ci yéen ku ma mën a dimbalee baaboo jaari muy sam fay ma sama cokal gi mu leb peut-être li yëg ci yonent bi ne ko seen nga waa ji weex jëlee tëdd ko waaw mun a dara de xalaat yi ba ko wéy naa la mu ne ko ndax dooma wala ci Abu Jahl ibn Hisam doon naa jaay sama coggal def na ko yëpp lekk na ko ba mu jeex ñëw naa si fan du ma fay te ne ne kenn ku mën ci moom dara la xam yonent dal ne bërit ko nañ dem mu fay la léegi mu fay la la di àgg rek projet bi nañ ko topp seetaan yi nag bu ne Abu Jahl teel waa ji ni mu koy toroxale nañ jël seetaan yi ba yéen a àgg rek fëgg buntu ba Abu Jahl ne ko ubbil mu daal di ubbi mu ne ko fayal waa ji léegi mu ne ko léegi daal di dugg ci néegam di wàññi di jox waa ji waa ji ne li ma li na yéen a dëgg waa ma kay ñu ñëw na Abu Jahl ñu ñun de dañ wax naa moom ma rek ci mën dara dañ jàppoon ne su la waxee ne fay ko danga ko toroxal gàcce koo xam ne kenn mësu koo gis mu ne la fay ko rek nga fay ah, mu ne bu leen ma gaaw a yar de mu ñëw bëgg sama bunt bi sama fond mu ngi néeg yëpp yëngatu néeg bi bëgg a daanu ñu dama ko mu ne ma ubbi du ma ubbi ñu ne ko ah kay bokkee da nga ubbi mu ne ma ubbi gis loo su kuyel gërëm ne ma nga ŋaa naamu kaw waa nga ci asamaan naamu suufam waa ngi ci tegu ci boppam yonent bi mu ne bu ma deful li yonent bi wax rek mu daal di ma wan na lu may def ah ñu ne ko mu ne lii Abu Jahl ibn Hishaam moomu dayut dayut dayut dayut ba keroog xare Badar dara lañ ko rey de. Alfayda FM. xare Badar moom ak moom doomi Abraha ci lan faar ñu ngi doon sàmm seen i gëlëm ba dégg xare Badar ñoom ñu daal di jubal rek daal di ñëw ci Quraysh donc ñu daal sa xarit bi ne Quraysh ñun dañuy laajte yëpp kuy Abu Jahl leen ñu ne lu ngeen koy defee ñu ne dañ dégg ne dafay xas ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ne ko waaw ma nga ne demoon dem leen ngeen ci mën ngeen demee léegi sax dégg ñu daal di ñëw rek daal di ko féete daal di ko seq kii taxaw ci kanamam kii taxaw ci kanamam ñu su bu leen defee seen xel ñu def ba xelam ci put mi ñu ba xelam ci xam-xam ci baat bi rek mu daal di naan malu booloo mooy jëm àllaaxira waaye deewut nag bee xale la sotti ñu rey ñi ñu rey ñëpp yonent nañ ñu rey ñëpp nañ leen wat ak ñi ñu wattindi gisuñ ci ray bi gisuñ Abu Jahl ibn Hisam Yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di soppeeku nee na Abu Jahl Abu Jahl mu mucc mukk dem leen seetlu ma Abu Jahl Abdullah ibn Mas'ud bëgg na bi Yonent moom nga xam ne moo daa teye daal di Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tuuti woon ba bu mbooloo mi toog moom mu taxaw taxawaay mooy tolloog tolluwaay yi ba saaru bayaan wàccee yéen ñu def ne ku ñëw saa yoo xam ne jàngal ko waa Maka kenn nag dootul yéen ñu ku ñëw saa yoo xam ne Maka kenn tontu rab laa mun a sonn man mu waxati ko kenn tontu mun a ko demal fekk tuuba boobu daal la toog ay yoon bëgg kenn mu dem saa yoo rek abu jaare muy sam jàpp ko njoof na ko mi caw ko caw caw ay yar ba nga xam ne yaram yëpp dagi dakk mu ñëw ci yonent nag di jooy naa ko gis nga ni ñaar bi jaaree léegi saa bi jot. vraiment dog na sama nopp yi de yonent ne ko moom dogee sa nopp yow yaay dog baatam ñu ngi ne xale waaye deeagul de mu ngi xel ñëw moom Abdoulaye ma sax dal di toog ci kaw dëndam dana sarangaayo mu ne ko rek sàmmkati gàtt bi toog la tey ci siit bu foor wala lu xew mu ne ko yàlla toroxal na leen mu ne ko dara xewul lu may buur bu ay baadala wu yàgg naa am ci àddina moo mas a ñu ko topp ñëpp damay baatal loolu rek waaw bi nga gis ci message bi kaw rek waaye xam nga ne dara kaw waaye maa ngi la yóbbante ci yonente bi sallallahu wa sallam ko adduna ji nga jox gannaaw bàyyi wu ci ku mu bañ a moom alaxira ku mu jëm tey ku ku mu bañ a moom rek bu man na dëgg baatam Abu Jahl ñu ne ko seen jaasi yi ban yooyu mën na dëgg sama baat sabar sama jaasi yi boobu dee dëgg sama baat mooy yamaan yi Abdullah ibn Mas'ud daal di fab jaasi yi Abu Jahl ji nag daal di dëgg baat ba nag ñu ne ko fas daal di bindee may nu attanu ko dinaa ko def mu mu wax ko nag mu mu sopp sopp nag mu wax ko yonent ne ko boobu Abu Jahl ak yonent sa kàmbar na sant yàlla soo ko doo gis mu nekk ko ne ko na ne addina si mu jox day wut ci kum bañul yow alaxira ka mu jëm di fa fekk kum bañul yow de yonent ne yàlla suturaal nga sama xeet sutura koo xam ne képp ku ko koy bëgg a wuññi boo demee sama firaaw na naw na Muusa raji ngeen yàlla ci boppam ba xaral yàlla tàmbalee di ko ŋaññi moom moom ba ci xaral na seet waaye daal seetal mu def waxam moom laa ilaha illa alladi amana bi banu israila wa ana minal muslimina loolu mooy mu def waxam kii moom naa addina ji ma jox gannaaw yonent bi la ci gën a bañ allah ferakam jëm yonent bi la def su bañ na yonent bi nga xam ne li firawna Musaa bi bon bon moo gën a baax firawna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye daal kii moom su dara si xeetu yonent lamb na ko ba yàlla ñu ko ni mu ñëwee firawna Musaa bi rek Abu Jahl muy daanaka moom yëpp war na la ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu nekk yu bëri bëri yàlla nga ko doon xaar ba nga xam ne kenn mën ko dara rek ndax yàlla fi ñu bindee bindee fi dafa doon te ñoom ko dëre ne lépp lu mu bind na jaayanteeg moom yàlla ne du lor yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weñ ci ñuur waataloon na ko du lor yonent bi sallallahu alayhi te waataloon na ko ne du lor yonent bi ndox amul lépp lu yàlla bind rek moo tax da nga xam ne waaje Xawras bëgg na koo rey ci jaasi itam jaasi ja lank ndax moom weñ fi ñuul lekk weñ fi ñuul waatoon na du lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka dañu wuru jamiil moom itam moo bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Jahl mas naa fab doj ne daf koy sànni yonent toj boppam waaw dañu waa wow ci loxoom ne ma nga xam ne kenn mënu ko sallallahu alayhi wa sallam ndax booba seen bis moo xam ne ñoom bañ nañ ko mooy diine jaamu yàlla rek dañ ko sakkat bokkaale wàcc seen këram yi ak seen yu bon yi doon def waaye si jaay yëpp yëpp lislaam ñëw xaare ko moo tax dañu bañ ko noonu ko buñ ko mën a doon dara kon ñu sakkat ko taxawaay mu ne luñ ko dara moo tax jéem bu jéem a gàddaay gannaaw fukki at ak ñett ci seen diggante duñu doon daw duñu doori duñu dara lu ñuy lu ñuy wute boo xam ne gox ba dina gën a yaatu ci xooteem rek bëri jaamu jariñu ci moom li nga xam ne yàlla def ko ñu ngir muy waa Makka ñoom xataloon nañ ko ba nga xam ne waaw su fekkoon ni li du gaaw a yaayee lim yaayoo ñi nga xam ne ñoo na Madina rek ndax képp ku mas a ñëw Makka danañ ko ne wattul bul dégg ci moom dara dara dara dara dara da nga xam ne kilifa yi dañ daa sañ seen nopp sax waaw am ñu teen ngir bañ a dégg rek wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ne ñu ne ñu ne buñ jaaxle mukk ba nga xam ne ni ñaaw ñaaw ñu ngi koy def yonent ba defe ne yonent yàlla mos na koo sàggane benn bés yàlla mos na koo sàggane benn bés اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح Alfayda FM ko borlu ñu ne ah am naa doom bi ñu bañ de nettali leen ñu ne nettali Alioune bi li nga xam ne moom moom la ñu njëkk ñu waxoon mu ne moom daal Ousmane ànd ak yi ma moom ko ci nag am doom yi yóbbu di nambal moo amul lu yëpp ko daaw xanaa moo gën a àll neen daal di ñëw ci Alioune bi ne ko jox ma sa doom bi ñu ne ko dafa mu gën a bëri nelaw alimatu Sadio di jiw muy muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu ko sànq muy nelaw ñëpp bu jot tam ñëw ci ayam ne ko kaay sa doon ci man rek ñu gën a ñëwee ma bee alimatu ñëw daal di ëkkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yow muy alimatu gis leer gën a gis yëngu yëngu ne ba jokk ci asamaan mu daal di xam yonent xaat daal di ko fat jox ko yoonam mu moom ku weeru ndey jooram ba mu yàqu wante jox ko weeru yoonal xaar xam na ne alimatu bi muy nampal mu nga amee jeneen doom bi muy nampal kon nag wala weer yi weer yi ñaar lañ doom di ñaar bu nampee benn weer yi war a namp bu ci def léegi bu ci def moomu ko kenn ñu doom moom dañoo tax yonent bañ a namp weer weer nga ci def da nga xam ne loolu alimatu daal di ñëw daal di laaj yoon ci kanam daal di laaj yoon waroon wala juróom bi waroon daal di mën a am juróom bi daal di suur suur bi taxawaay bi ba nga xam ne xanaa bi jiw ko bés boobu xam ne soo am ji. Alfayda FM jëkkëram ne ko xanaa bi juróom bi ñu nekk si nekk soo ko nekk génn ba bien ñu ko dee rafetlu soo ko daal di sotee ko de mu rafetlu ba mu fees mu naan jox ñu ànd ak yëpp ñu naan ñu ko donc ñu ngi lay dugal doon ci barke la. dañu demee jërëm boo ko tudd sa morom jërëm jërëm jërëm yëpp daal di suur yëpp ci kaw xam soow bu juróom bu judd ko jërëm gàtt yi nga xam ne jaxasoo ñoom ñoom ñu ah adama su ne jëkkëram mbindeef yi ñu jërëm ma sa rey mbindeef ñu barke te ba ñuy ñibbi waaye ñu ngi ndax gëlëm ngi wóote nañ ci te fekkan ba jiitu gëlëm yi barawal jëfura mbooloo nga xam ne ñoo àndoon ak moom jigéen ñi àndoon ak moom jëfura na ko moo animateur buy dënd te su ko mën laa joxe ci ngoon kenn mënu laa jot te yaa ngi sañ dëkk boo xam ne day ñu dënd si yow foofu nga dugg mel noonu Aliou Diop Ndeye moom day doon ji moom daal yaakaaroon doon ji barke doon ba ñu doon yëkkat waaye Aliou Diop juróom yëpp daal di jiw di di joxe am solo rek Aliou Diop sàmm bi bu ñu koy sàmmee fekk ñax mu tooy sàpp ñuy fara fara fara fara ba fees dell seen i xanaa fees dell ñu bëggee ये आए मिल गई इसका नहीं सामने होगा हम बड़ा काम दे दूसरा काम ये भी बन रहे दूसरा को बोले आने वाले में मैडम बोल सामने जिंदगी बोल रहे जितना रहा है आज मुझे सामने मिला रहा है बड़ा मिला हो सुना रहा है अरे मैं तुम्हें का काम करने में नंबर नहीं रखने का बताया था नियामंत होगी वास्तिमा हो मोरम परियों को सुधारे वसलम bi xare fas Makka ñëwee ba yéen a fas Makka waa Makka jébbalu te fukki junne yi soldaar la fa duggee ñaari junne jébbalu ci moom ñu fukki junne ñaar moom la demee Xuneyn xare Xuneyn nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gañe leen màngo ci ñoom xaram yoo xam ne mosu ko màngo di ko dégg ñetti juróom ak ñetti jàpp ak ak boppi nit juróom benn junne ci boppi nit moom la yonent man di jaam juróom benn junne ootee ci nit mooy dollar yi wut fii xew ren ak ñeneen fukki gétt juróom te ñoom duñu wax gétt lu may ma téeméeri gétt Fayda FM juróom benn fukki gétt ci gàtt loolu la ñuy doon jaamé njàpp rek loolu la ñuy doon jaamé ñu am lu jàpp rek ñu ci ko doon ñu sinon ma tam ñu am naa dem doon ci ñu rek ay ma dina ci na ne ko bëgg ñu wax ak yow bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ñàkk na ko rek lool te fer ba du bokk na ko ko ñu ko jàpp jaam bu ñu ne ci am ko ñu kenn ñun daal wax nañu ne ñoom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Yonent bi loo xam ci ñi nga xam ne ñoom la doon mën a am kaw man de sama waxee moom tam Yonent bi sëriñ bi dafa tam mu yàlla ko yoo xam ne ko gisoo gi léegi fii yaa ngi ma tam ba day woote bi sama yaay Yonent bi wax na ma dëgg Yonent bi fàttali ko ko ñu ko def wax ko ci booloo du ko dee te tisbaar imaaw ñëw te mbooloo moom dañu teere yoo loo xam ci aw nit ñoo xam ne ñoo doon man balam soo ko lay demee man day sama yaay ala xam man nag sama yaay bu nam balam tey kaysar bu ñu tubaab yi ñu jàpp ma yóbbu ma ci kaysar ma yaakaar ne sama mu ci sama yaay nam balam kisra noonu te sama yaay ma faral ma man ma ñu def ma yaay ma loolu ma ñu ko bind nga xam ne sama yaay ma faral nga koy jëkkër yéen ci yéen man ngi day lépp lu Musalim ak man loolu moom ñaanoo ñu ci def moom baal ngi yàlla ak yéen boo ko mënee boo ko waxut boo ko mënul waxal ma fayal ñëpp ne ñun de lépp lu ci moom ñaan na yàlla ak yéen mu ne banu tamim ne wax dëgg ñoom ku leen joxe wàllu ñu jël yéen su ma laaj dig naa leen xare bu ma jëkkatee xare maa leen maa leen xare wàll ñoom ñu ngi yéen su wàllu ñu si maa leen lépp ma yaa ko def daal di dindi kaalaan jël mu laxasee woon mu yéen su ma laaj leen xam laaj ko si maa mu toog yéen su di ko ganale di ko ganale di ko ganale ba ñu ñu di jël yéen su ma laaj leen xam நான் இடையிலும் ஐந்தாம் கராயம் நிகழ்வாக மிகவும் செய்திருந்தோம் அப்போ பல நாள் முஸ்தபா முஸ்தபா முன்பு பயந்தால் மிக திசையிலிருந்து கிட்டத்தவன் ஒரு சட்ட நாயம் சுத்தம் சமைக்கிறோம் ஒரு ஐயோ சர்வீஸ் முடியுது அவங்களுக்கு சக்கரை டாவோ கோபுரம் நம்பாரு தல்லா தல்லாயோ அவங்க சமைக்கிறாங்க குப்பதாக fayda fm waxata tam mujj fii ci jafe feew yee te moom sayid si nit bi mooy sangat jigéen ñi wa sayidaatu sa sang yi imaaw na ay jëwee dañ de imaaw mujj mooy sangat ñëpp te képp ku doon sang mujj nga di jaam keroog danaa ñoom ñëpp jàpp nañ leen de loolu yonente may imaaw juróom benn jinne ci boppi nit juróom benn jinne ci waxi wuru sa xaalis juróom ñeent fukki junne gétt yi gàtt ñeent fukki junne gétt ci gërëm de yëf yonent naa yi ci ban taxawaare waaye jëfe ko mujj kenn mës a jëf waaw sabekat bu mës a maay doon day ji taxawaare buur bu mës a tawee ci arab da ngay feeñal sa tabe ci maye téeméeri gërëm de foofu la may xemoon waaye keroog yonent sallallahu alayhi wa sallam li maye li leen su ko maye su jaadu na leen wa kuma yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na nit ñi tam ba nga xamee naa tam ba ñëw Madina dafa mos a ba koor ba nga xam ne xam na ay xat tawut de dañuy ñëw taatal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jumaa dana arab yi ñëw ne yonent ñaanal na nit ñi ba bi xëpp na gaa ngi dee ci àll bi ndax mar tàndarma yaa ngi woo ngir mar ku mar dog la nga dee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yëkkati Abu Tarafa ne ko aha sa tàggat ma ca nga a wax jaa war waaye ba kat mu ne yàlla nangaloon jaam yi nangaloon sa réew nangaloon say jaam yàlla nangaloon nit ñi ba Abu Tarafa waaw di xam nga ca biir jarage même ba ca weer waxtaan sandarmaam yàlla na ko fa sandarma ja fekkale na ko fa taw ba fekkale ak sa salaatal sandarma ja nam ko weeroon taw dana fa taw bi taw ca ji ñëw ba ji ji dem fi ñu ñu ak mo dana sa bu jëlee bi mu ko defo di yëral bi ma xon de waa nga lu ko di jëm te taw yi mooy tax rek ñu ko di ba nga xam ne def ba di waaja lay taxawaat wala keneen di yonent mu sébéti taw bi taw na ba nga xam ne tàngoor yi doon rafetlu far na buut yóbbu nañ ñe tàngoor yëpp daanu nañ ku kenn mënatu ñu dem marché jënd loo rek taw lañ kenn mënatu ñu dem bi jënd loo rek jub gi mat na ci biir àll bi biir ndox ma waale laa aaree yàlla jëmale taw bi ci suñu ay waaye ñu nekk ci suñ kaw président Kaolack moom soo ko yëngu soo yaw dee bi ñu la laaj na tëj ñu jëm ñu jëm ñu ñu ràññee rek ne. Alfayda FM. loolu mooy baax bu ñu doon baax baax ci jumaa daana baax ci jumaa beneen yoon nit ñëw na ne ko ñaar nit ñi toog mu jóg ci ñaanu waxul dara taw rek di sotteeku rek da ngay xam ne bu mu yor sa ndimbal rek ndax maa ngi yor rogaat ci li ci kii bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam mu ana ku may wayal tey si dinaa yi ne ko xam naa dama bëgg ko way dafa bëgg ñu wax ne waaw yow day sox xol xamaamu mi ba ji ci maa ngi yor sama yaa ko suñu yaa mu ne ba tigi daal ñu wax ko rek Abu Talib xam nga dafay wax yéen a ngi sa bopp xale la di wax ne xar kanam bu leer bi nga xam ne mën naa tax sax taw wàcc loolu moo xam booba xamu ne loolu dana am te ñu baax rek ñu ngi ñaanal sax taw bi ñu tax waaw nga taw bi di wàcc rek ba rek ñu ñaanal bu may ma rek dafa bëri ah waaw yow dañuy fekk xam xam nga yooyu ah yéen daal maa ngi rek ma fi mu daal ñu ngi ولما سمعوا بالحساس جنب فأخذتهم جنب بيتهم قرر يرسل صلى الله عليه وسلم دخلوا قرر في جنب رأيته ولم تفرق بخير ما تفرق بخير ولم تفرق بخير ولم تفرق بخير فقال جد سورة سيد لهم الشاعر يجيو الشاعر يجيو ثاني لم يكن يوم يسكت قرر ولا يعلم ذا قرر moom la ko yàlla wax naa wa maa ramayta iz ramayta walaakinna Allaaha ramaa gannaaw bu mu waxee falam taqtuluuhum walaakinna Allaaha qatalahum wa maa ramayta iz ramayta walaakinna Allaaha ramaa dégg ngeen laay ñaari maqaama yi bokkul nag waaw saaba yi dañoo wax ne doomi moom sax moom dañoo werante ku ci ne ne moo rey Abu Jahl ñu ne maa ko dëbb sama xeej ci put waaw put ma dagg mu dee ñu ne maa ko dëbb sama yàlla ne rey leen leen man yàlla maa leen rey leen ne yonent bi yow itam sànni wu ba nga sànni man maa sànni de ma ne leen ñaari ma xama yi bokkut falam taqtuluhum walakin la axabadahum su ñàkkaree gi moom daf aslan ñun defuñ dara yonent nag mu ne ko sànniwu la ba nga sànnee moom fa <coughs> moom sànneem nga saxal na ko <coughs> waaye nag sànneem nga du sànneem sànni yàlla la sax na ko waaye yàlla yàlla fa taxaw ñun nag defuñ dara ñun ak neen lañ def ci nga xamee wuute ñaari ma xamee def ba mu sànnee rek ndax xare ba xare uut ba mu tàngee ba tàng daf ne jox leen ma jambaraay ñu jox ko mu téye ko mu sabbaal mu teg ko ci loxo sidina Abubakar mu sabbaal mu teg ko ci loxo sidina Umar mu sabbaal mu sàmm leen ko dàq leen de far na laaye daw nañ xéefar rek lañ xare bu néew la dañuy dem bu néew la ñaar lañ ba nga xamee ne génn nañ Makka xare bi def mës mës mës mës mës Abubakar Siddiq aji sopp mu geesu kare yonent bi fu nekk mu seen kare yi mas masi de mu ne ñëw du ñu dàq tey tuude ñoom ñi nga ne ba ñu dem Badar ñetti téeméer rek lañ tey ñuy fukki junni ñaar mu ne du ñu dàq tey tuude yàlla gën a moom kenn du ci dara yàlla koy taxawal boppam nga waxee loolu di ñu àtt fu ne ba fenkoog téeméer rek saawa yëpp daal di daw fukki junni ak ñaar yooyu gëm ñaar rek ñoo ko taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy fukki ñu dëgg yàlla jana Abubakar Siddiq Umar ibn Xattaab Usmaan ibn Affaan Ali ibn Abi Taalib Salaatu Saadu Saïd Abdurahmaan ibn Abu Ubayda ibn Jarrah ak Abu Sufyaan ibn Haaris ibn Abdul Muttalib bokkut ak Abu Sufyaan nanami ak Abdullah ibn Mas'ud wala Bilaal gëm ñaar yooyu dong ñoo teew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp daw nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xéefar yi ku nekk xéefar nga bocc jaaseem naa xana Muhammad ma rey ko de nga xare ku nee na yonent warul sax fas la la war de kenn mës na gis koy dem ci xare yi war bax la yonent ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bax la bi ñuy wax tuul moom la war dafa mujj taxaw ca kaw bax la ba di wax naa ana nabiyu la kadib ana ibnu Abdul Mutalib man maay yonent yàlla Muhammad ci lu dul nar man maay doomi Abdul Mutalib ñu koy xam ne moom la buute waxut nag ne maay doomi Abdoulaye daf ne mooy doomi Abdul Mutalib lu tax Abdoulaye bu gàtt fan la ci fukki at ak juróom-ñett la dee fukki at ak juróom-ñett la am Aminata am fukki at ak juróom-ñett ñu sëy Aminata moom yonent bi rek Abdoulaye moom daal di dee xam nga ne ku jublu am bu gerte gi ñett dee duñ la xam ci àddina si moo tax siiwul ci jamonoom Abdul Mutalib nag dund na téeméer ak fukki ci wax ji gën a wér ci woon naa àddina yëpp xam nañ ko Abdul Mutalib moo tax mu tudd askan boobu ci Abdul Mutalib mi ñu xam mu ngi leen di junj dem Abdul Mutalib dafa géntoon Abdul Mutalib mas naa nelaw géwél bi càlla la génn ci ndiggam benn boor ba di dem ba fa jant bay fenkee benn ba dem ba fa jant bay soowee garabam dañeen daan sax boo xam ne keram muur na àddina mu nekk li ko firika si gént yi ñu ne ko si sa gént gi dëggoo da nga ji boot kaa xam ne ñu dem dana mas tax mu naa dëgg mu talib di di fàttali ñu ne mooy jërëjëf borom nga xam ne ñun laa pour ñu koy gisal nga nekk ba nga xam ne yaaram yëpp waaw déggoo ñu ñëw ñu koy gis ñu ñu def ba loolu xam nga nag jërëjëf dundul dundul gi guddi dundul taxoon ak suuf dafa ci dugg suuf dundul ak dafa ci waatee wala ci dugg suuf loolu ko ñu ñu ko wax ne xam nga dafa am lépp dafa suuf. Alfayda FM. moo tax wax dëgg dafa de alal jooje ba léegi ba léegi ba ci seen jotaay bii sëriñ boo fekk ñu daje laa dee rek bu tax jot moom la de loolu am na gën a béy loolu de ba yàlla defee nag loolu am na nag yàlla yónni yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla yónnee na ne Xadijatu moo mel ni xaaral ci Moussa ci moom de moo ko doon defee moo ko joxal la lépp moo doon dara jaral ba ko yàlla ñu gis ci wéy bi la xam ne doomu aadama doomu aadama rek dañu fay ñu tiit bëtam rajo bi moo ko doon dara su ko defee man la doon dara mu ne ko yaay yàlla la toroxal mukk jikko yi ma xam ci yow du ne ci ñun mukk yàlla da ko toroxal yow da ngay defar kenn amul xamalal ko nit ñi da nga dimbale sans bopp rek dëgg da nga garale gàll da nga jox sa bopp yow yàlla da nga toroxal rek ku bëgg a wàcc sa bopp ñàkk a torox rek Xadijatu moom ñu ne moo jëkk a gëm ñu ne waaw kare jëkk a gëm ñu ne ay ñoo jëkk a gëm ne mën nañu ko dajale muy dana wax ñu ne Abubakar boole mag ñëpp moo jëkk a gëm ndaw ñëpp ak ñoo ci jëkk a gëm jigéen ñëpp moo ci jëkk a gëm ne gannaaw ga nag Sidina Usmaan gëm Abdurahmaan ibn Awf ñu jëblu par ay góor ak jigéen ba mat fukk fukk ba mat fanweer ak ñett ak juróom benn ci jigéen de muy fanweer ak juróom ñeent sidina Umar ibn Xattaab ñëw jébbalu mat li leen ñeent fukki rek ba waa jooju ñëwee rek boobu rek léegi ci soppeeku rek lii waral mu jébbalu nag mooy dafa daje kenn ci saaba yi ko dóor naa ko yéen a ngi jàng di topp Muhammad kooka ne ko jag naa ko ànd ak sa torox ak bakkan waaye lu la gën a naqari dal la mooy sa jigéen Faatimatu bintul Xattaab sa jigéen ci topp ci yow ak jëkkëram jébbalu nañu ne mu ne nga ne loolu mën naa am mu ne ko loolu am na rek mu daal di ñëw ci këram ba mu jub kër ga dégg ñu jigéen baa ngi jàng ak jëkkëram naka leen gën a jigéen wax ci réew na bëgg mu ñëw ne di ngeen doon wax ñu ne ko waxul dara mu daal di tàmm jëkkër ci taatu ne ko dégg naa jàng na di ko xas di ko xas ba dóor ko ba nakkel ko xal bi daal di waaye na ndeysaan mu daal di ñëw ci taatu mu ne ko dama ko sa dara jëkkër ci nakkel naa ko daal di rëcc nag ne ko téere bi mu doon jàng nag mu ne ko téere bi alquran yàlla ji la laa yamassuhu illal mutahharuun ku laal bu ko laal te dafa juddoo la day daa sangu jaral boo ko boo sangu day doo ko laal mu daal di dem ci mu ne ko sangu moom sore la mu ne baax na tey ma rey waaw jégal nga xam ne moo ne ci téere bi war mu ne ko jox ko doo lor yonent bi doo ko jégal lu ko naqari doo ko jégal kenn ci saa wax ne mu ne ko waaw dama ko rek mu génne ko la li mu doon jàng nag bismillahi rahmani rahim فما أنت ما لا يسمع تسعى لا تذكر من يسعى تنزل ما خلق الأرض والسماوات ولا الرحمن العرش استوى قبل الله قريش بلا قريش بدو دي وقت كم نستجيب وقت على الجنة كم قريش بدو بلا يدعو بكتب الأمين ne ma tekkale ba mu ma mën nañ daal wax xam su fekkee doo ko lor mën nañ laa wax fu mu nekk mu ne du ma ko lor mu daal di jubal daal wax xam daal di ñëw de daal di xëpp saa yëpp rek la ci def ñu ne xam sa su ne loxo ñu ne ma war a ñëpp te aw xay rek moo ko fi indi xam sa su ne bàyyi leen amar mu ñëw su ñëwee te fekk fay jëppalu si salaam su fekkee ñëw na ci lu may loolu jaatee bi ñooñu mu gàtt de grâce yonent ne bay leen xoolal man bu bu ko kenn daal yonent ko daal ko gàttalu rek daal ne ko om xoñe ko ba ma ko bëgg a seetlu ko omar doo bañ lu may la wàccoon ca ànd sama la wàcc ci si dina ma daal di dox daal di jëw ne laa ilaha muhammad rasulullah daal di jëblu rek fekk na ba muy ne ko omar gëlal yaa ñaanal yonent bi tey bi ñu julli fajar maa ngi jënd ak moom mu sujjóot di ñaan yàlla naa yow yàlla yàlla nga dëgg rek dina lislaam ci kenn ci yaay Omar yi Omar ibnu Hisaam mooy Abu Jahl ak Omar ibnu Xataab rek dëgg la yaa ñaanal yonent bi rek Omar ibnu Xataab moom daal ñëw jëblu ah, ah, ah, Omar bi ci des mooy na jaal xam tamatu yaay Omar ibnu Xataab ak Abu Jahl ibnu Hisaam ñoo ko day ba loolu xamee nag xaasi nu waaye li def mooy na jaal Omar jëblu nag daal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax du noo nekk ci dëgg suñ dundee suñ mu ne en mu ne ko lu tax ñuy jaamu yàlla di ko nëbb yonent ko loolu dama yàlla dina def mu ne ko am na nëbb gannaaw tey kooku de du mën a am de man ma war a may di ko feeñal di jaamu ndaaw di ko nëbb ah loolu de dul nekk rek ah xam sa dinañu génne yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari sappe ñu jiitu ci kanamam sappe si jëkk si ñoo war ñu xataa jiitu ci si ñaareel la am na naa ñu tamit jiitu ci de ñoom ñaar wala lañ ñu bàyyi sa rek dañ ko bàyyi man nas bi la xaram ñëw ka tee xam rek jàng wala kuréel yëpp rek jàng rek kera ba yonent wa sallam kera ba gën di féete kaw gën di féete kaw di gën di féete kaw ba ñu kéefal far ci jëfandikoo ak ba nga xamee ne yonent bi génn na àdduna ba te yàlla jaaree ci moom la lislaam tas ci àddina si yëpp nañ diiru dundal Omar ibn Xattaab lislaam dafa mel ni waa ji ñëw ne kuy ñëw koy gën di jege rek ba mu génn àddina nag waaye ba Omar génnee àddina ba tey itam lislaam fay mel ni waa ji dem rek nga fay gën di sori rek sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy ñeent fukk ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci diine islam fekk na Quraysh nag li leen di dem yonent bi naqari naqari yonent nekk na mbay mbuus di ko xam ne am ci jàmm daal ñëpp di ko xam ne moom la ñëpp wóolu ba dégg ko seen alal ak leen mbir ñu naqari ñëpp dañ daa wax gannaawam rek waaye su teeree duñ mën a def lu ma yaru fi kanamam rek màggal ko rek waaye nit ñi di gën di yokku rek di gën di yokku rek ba mënatuñ ko mu leen bañuy bañ koy dalal ngëneer wan ko ak noone booba ba seen mujjukaay ñaare ñu des nag ne léegi Muhammad lii mu nekke mënuñ ci di doxloo sañ xel yi di doxloo sañ xel yi bàyyi di xas suñu yàlla yi di xas suñu yàlla yi bàyyi loolu mënuñ wéy te Abi Taalib mooy suñ kilifa mooy bàyyam su dee te Muhammad bàyyi li muy def duñ mën lu Muhammad rek te kon ñaar danañu gàcceel ko waral nañ dem jéem a jiwoo Muhammad ci kanam Abi Taalib ñu ñëw fekk si Abi Taalib ne ko léegi daal ñëw nañu xatbatoo saybatoo wali ibnu xatbata abul busri umayya ibnu xalaf wali ibnu xerata ak abu jahl muy saam saay saay si makka saan yëpp ñu ñëw ci Abi Taalib ne ko dañoo ñëw pour bëgg jiwoo Muhammad de mu ne ci kaw lan ñu ne ko dañoo bëgg su fekkee woote bii muy woote nguur la bëgg ñu fal ko léegi muy suñ nguur tam bàyyi lii muy woote rek wala su fekkee alal la bëgg ñu dajale suñu alal yépp jox ko bëgg ko alal jaar dina tam bàyyi lii muy wax rek gis ngeen ne leen def jaral su fekkee ne jigéen la bëgg ñu dajale suñu jigéen ñu rafet ñépp may ko tam bàyyi lii muy wax rek ah nit a dina boo ko waxee loolu loolu lu fekk ne ci la moom loolu daal di taal déggee loolu daal di woo yonent ne ko sa mbokk yi nga bëgg nañ leen di woo ñu yëpp xaat nañ ko ñu ne li nag baax jàll yonent ne wala leneen lu may loolu ñu ne lan ñu ne benn baat rek boo xam ne su ngeen ko waxee mbooleem yaaram danañ leen topp te mbooleem lakkat yi ñooy ñun yaaram danañ leen jox dara daa leen laaj soxla la ko wax te dana ci fukki moromam mu ne ko laa ilaaha illallaah moom la ñuy unduraa an yusoo duraa wa araadakum min awaadatayawuda ajaara wa araadata ilaa waaradat yàlla yi ñu am yëpp tey ci makka ñi ngi am ñett téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te ba léegi suñu xaal yi xajul mu bëgg ne yóbbu ci jëm yàlla bu ne buñu jëm nañ laal ko dara suñu yàlla yi def ñu daal di dem nag Abi Taalib nag ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla nag sa mbokk yi bëgg nañ juwale yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam daal di joxe nag ne ko walaay yow bàyyi su fekkoon dañoo jël jant bi def ko ci sama loxo ndaje waaw di ma nag ñu jël weer yi ci sama ma bari yi may wax rek yàlla moo ko sant rek mu ne ko parce que dinaa ko wóor di leen sa borom digal rek ci la koy wax naa walaay ñett dara ay kër jàmmeen ata wasa turaa bi defe ne du ñàkk ci yow mukk de man bu jege ko abi daal lu na ko ngir yonent ko laal ko yàlla ko jubalu rek innaka laa na si li atanu safa wala dala naay naa balaay ne duñ jébbale yonente bi mukk lu may ñu normal ñu ci kanamam ñu dee ñu fàtte suñu jabar suñu doom waaw ñu la neex ñu dee waaye ñuy dund wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu am yaa ci moom loolu duñ ko def mukk de Abubakar ibn Haaris ibn Abdul Muttalib keroog bi ñu ko daanee ca xare Badar la wax yonent ne ko baykat bi day Abu Taalib ba ko waxee waaye maa ko maa ko gën a yegg ci baykat bi de man maa def moom moo ko wax waaye man maa ko def noonu yooyu Quraysh ah mënatuñoo def dara nag lu ma ñu fekkee lu dikkee caay caay rek lañ soxal jàmm yu doon nag di ko wax lu bari di ko defal bari gannaaw bu ñu xamal ne ñoo ko tuddal la nii gannaaw boo xamee ne ñoo doon wax ne Muhammad du kenn mukk Muhammad du wuruj mukk waaw ñu war ko ci nag waaw di ko wax lu gën a bon ci àdduna rek waaye ñu ngi rek di leen woo ñu ngi leen woo ñu ngi leen woo daa am na ku képp ak ñett gannaaw buñ ko yónnee am na ko ci Makka ba nga xamee nag ne ñii daal duñ gëm mukk te moom bëgg na gox bu gën a yaatu ba mën a tas lislaam ba mën a dayaat les yëpp loolu waral gadaay yi mu gadaay Makka nag dem Madina ne du daw leen du ragal leen du ñëw doole kon du toog ci ñoom fukki at ak ñett war a ko bëggee gadaay rek dafa xam ne rek oh, Madina foofu la gën a yaayee ba mu gàddaayee dem Medina nag sallallahu alayhi wa sallam ci la ci la ci la ma nag di tas nag ba nga xam ne jëfandikoo arab yàlla wuni na leen ñoom ñëpp ñu ngi ci diine islam ba kéefar amatul waa ci jëfandikoo arab rek la wa salli ala sayyidina muhammadin Alfayda FM. Alfayda FM lii la presse bi daw di wax tey kenn mës a gis wax jaaree tey moom yan la presse bee lii la ñuy daw di ko tawloo nit ñi. non tekkale ba mu ma mën ne daal xam su fekkee doo ko lor mën nañ laa wax ne mu ne du ma ko lor mu di jubal daal wax xam daal di ñëw de daal di xëpp saa yëpp ku nekk ñu ne am sa tule loxo ne ma war a ñëpp te aw xay rek moo ko fii am sa tune bàyyi si salaam su fekkee ñëw na ci lu may loolu jafe mu gàtt de gala tere de yonent ne bay dana xoolal man bu bu ko kenn gaalu yonent daal ko daal ko gàttanu di ne ko om xoñe ko ba ma ko bëgg a teelu mu si dinaa ma daal di dox daal ne laa ilaha illallah muhammadu di jëblu rek fekk na ba muy dugg xabaar ibnu Nara bi daje naa moom ne ko Omar jëlal yaa ñaanal yonent bi tey bi ñu julli fajar maa ngi jël ak moom mu sujjóot di ñaan yàlla naa yor yàlla yàlla na dëgg la dina islam ci kenn ci yaay Omar yi Omar ibnu Hisaam mooy Abu Jahl ak Omar ibnu Xataab rek jëlal yaa ñaanal yonent bi rek Omar ibnu Xataab moom daal di ñëw jëblu Omar bi ci des mooy na jaal antamatu yaay Omar ibnu Xataab ak ba loolu amee nag xaati nu waay def mooy na jaaru Omar jëblu nag dal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax du noo nekk ci dëgg suñ gundee suñ dee mu ne ante mu ne ko lu tax ñuy jaamu yàlla di ko nëbb yonent ne ko loolu dama yàlla digal rek mu ne ko amaa nëbb gannaaw tey kooku de du mën a am de man Omar may jaamu jib tëg taabo ci Makka di ko feeñal di jaamu ndaaw di ko nëbb ah loolu de du nekk nañ dem rek ah xam sa si nañu génne yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari sappe mu jiitu ci kanam sappe si jëkk si ñoo war ñu xataat jiitu ci sappe si ñaare am sa dinaa ko ñu tamit jiitu ci de ñoom ñaare wala lañ suñu bay sa dañ ko bàyyi dem de ñu daal di ñëwal jëmal nas ñu la ñëw Quraysh ne daaw teel xam rek jàng na wala Quraysh yëpp rek jàng rek keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba Omar ibn Khattab duggee ci lislaam keroog ñu ne lislaam féete kaw gën di féete kaw gën gën di féete kaw du gën di féete kaw ba ñu kii far ci jëfandikoo ak ba nga xamee ne yonent bi génn àdduna ba xilaaf diiru dundal Omar ibn Khattab l'islam dafa mel ni waaj mi ñëw ne kuy ñëw fay gën a jege rek ba mu génn àddina nag waaye ba Omar génne àddina ba tey itam l'islam fay mel ni waaj mi dem rek dafay gën di sore rek sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooñu ñeent fukk ñi nga xam ne ñoo di kër dugg ci diine l'islam fekk na Quraysh nag li leen di dem yonent bi naqadi naqadi yonent nekk di ko xam ne am ci jàmm daal ñëpp di ko xam ne moom la ñëpp wóoru ba dégg ko seen alal ak leen ngir ñu naqari ñëpp dañ daa wax gannaawam rek waaye su teewee duñ mën a def lu may yaru fi kanamam rek màggal ko rek waaye gis ñu di gën di yokku rek di gën di yokku rek ba mënatuñ ko mu ne ba ñuy bañ koy dalal ndéneer wan ko ak noone booba muñ nañ ba seen mujjukaay jeexe ñu soog benn des nag ne léegi Muhammad lii mu nekkee mënuñ ci di doxloo suñu xel yi di doxloo suñu xel yi bàyyi di xas suñu yàlla yi di xas suñu yàlla bàyyi loolu mënuñ wéy te Abi Taalib mooy suñu kilifa mooy bàyyam su dee te Muhammad bàyyi li ñuy def duñ mën lu muy rey Muhammad rek te kon yaaram danañu gàcceel ko kon nañ dem jéem a jiwoo Muhammad ci kanam Abi Taalib ñu ñëw fekk si Abi Taalib ne ko léegi daal ñëw nañ خطبته شيبته ولي بن عرفة أبو الزهري أمية بن خلف ولي بن محيرة ak Abu Jahl ñu ngi saam saay saay si Makka saam ñu ñëw ci Abi Taalib ne ko dañoo ñëw pour bëgg di boobu Muhammad de mu ne ci kaw lan ñu ne ko dañoo bëgg su fekkee woote bii muy woote nguur la bëgg ñu fal ko léegi muy suñ nguur tam bàyyi lii muy woote rek wala su fekkee la bëgg ñu dajale suñu alal yëpp jox ko ba mu faa ak jaar dinañ ko bàyyi li ñuy wax rek gis nga leneen la fi jaral su fekkee ni jigéen la bëgg ñu dajale suñu jigéen ñu rafet yëpp may ko te bàyyi li ñuy wax rek ah ñu tagaat dina la boo ko waxee loolu loolu lu fekk ne moom la daa di taal déggee loolu daal di woo loolu ne ko sa mbokk yi gëstu gën a yéeg ñu woo ñu yëpp xam nañ ko ñu ne suñu nag baax jàll yeneen ne wala leneen lu may loolu ñu ne lan ñu ne benn baax rek boo xam ne su ngeen ko waxee mbooleem yaaram danañ leen topp te mbooleem lakkat yi ñooy ñun yaaram danañ leen jox de boobu bare daa leen laaj soxla moo ngeen jox ma dara aboo jaar na ko waxal daaw ma jox la ko wax tegal la ci fukki moromam mu ne ko laa muhammad rasulullah wala ilaaha moom la ñu kunduna ani ko dura ala ayatakum inna wa ta'ala ajara ala ilaha wahida tey ci Makka ñi ngi am ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te ba mu ko gënee yóbbu ci jëm yàlla bu na buñu jëm nañ laal ko def suñu yàlla yi def ñu daal di dem nag Abi Taalib nag ne yonent sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla nag sa mbokk yi bëgg nañ jubale yonent nag sallallahu alayhi wa sallam daal di joxe ne ko walaay yow baay su fekkoon dañoo jëlee jant bi def ko sama loxo ndax jëlaat ko di ma nag ñu jël weer yi jox ko teg ko ci sama loxo càmmoñ booy ko ma bari yi ma waxee yàlla moo ko sant mu ne ko فساد ما تقول هو الذي لا تقول في ذلك تلقانا ولا يجب أن تدرك جميعهم أتى وصلت التراب دفنا ديوانه الدنيا تجي ومكري أنا من بني رسول أبي تعالى من دخل من يلا من خلال دخل يا رب جبرنا إنك لا تعلم أرسل ما يرانا ونسلمه xataa du safara wala dana naa naa faraay ne duñ jébbale yonente bi mukk lu may ñu normal ñu ci kanamam ñu dee ñu fàtte suñuy jabar suñuy doom waaw ñu leen neex ñu dee waaye ñuy dund wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu yi àgg ci moom loolu ñu ko def mukk def ab boobu dafay mu aari naa Abdul Mutalib keroog dañ ko daanee ca xare Badar la wax yonente ne ko baykat bi day Abu Taalib ba ko waaye maa ko maa ko gën a yegg ci baykat bi de man maa def moom moo ko wax waaye man noonu yooyu Quraysh ah mënatuñoo def dara nag lu ma ñu fekkee lu dikkee caay caay rek lañ soxal jàngu yu nant bi nag di ko wax lu bari di ko defal kon gannaaw bu ñu xamal ne ñoo ko tuddee Lamin gannaaw boo xamee ne ñoo doon wax ne Muhammad du fen mukk Muhammad du wuruj mukk waaw ñu war a tudd ko wax lu gën a bon ci àdduna rek waaye ñu ngi rek di leen oo ñu ngi leen oo ñu ngi leen oo da am na fukki at ko te moom bëgg na gox bu gën yaatu ba mën a tas lislaam ba mën a dayaat nit yëpp loolu waral gadaay réew gadaay Makka nag dem Madina ne du daw du ragal leen du ñëw doole kon du toog ci ñoom fukki at ak ñett a ko bu gën a gadaay rek dafa xam ne rek oh, Madina foofu la gën a yaay ba mu gàddaayee dem Medina nag sallallahu alayhi wa sallam ci la ci la ci la mbir ma tàmbalee nag di tas nag ba nga xam ne jësiratul arab yàlla wuni na leen ñoom ñëpp ñu ngi ci diine islam ba kéefar amatul waa jësiratul arab rek allahumma salli ala sayyidina muhammadin daan góor la waaye melu bi sànni gi yonent yàlla Moussa sànni mbir bi sànni gi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sànni na ko de sànni gi alxuraan di wax na sànni wu la man yàlla maa sànni yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam waykat baa ngi mébét ay mébét naa xelante mu jagle ma ma gis kanam mu jagle ma biir kanam mu ne lu tax xelante yonent si jagle ko daal mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dañ ne ko xaw a taxawaat yi am ku li man raaw rek képp ku gis na ko rek ak kanam bi nga xam ne képp ku ko xool taxawaat yi dañ ne ci yow rek mooy ak kanam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko ay jàmm jàmm ci xeetam muy rahmatu bi nga xam ne moom lañ ko yónnee ci xeer yi de du def ba pencam yàlla dañuy ñëw boobu dinañ ko ñetti firi dafa ñëw yéen di gis yéen Buxara sallallahu alayhi wa sallam ndax yéen di wóor yéen di gis moom nga gis ma ne ku la yéen di gis man nga gis seytaan bu mel sama melaw tax na bu yéen di gis yéen yow gis nga yéen rek kooku amul firi ak nu mu mën a mel rek yéen la mën nga ko gis nag sama xaama ma nga ko gis muy ci nii ma nga ko gis ciram wàññeeku fekk wàññeeku ba di jëmam ci yàlla sallallahu alayhi wa am dafa ñu gis ko ca pëjjal yàlla ndax foofa foofa gis keroog mooy ak yam dafa mu dafa ñu gis ko ci àdduna suñu jëmeer am nay jaam yàlla yoo xam ne diggante gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gëwul di gis daal doo dee te te gisoo ko ci nelaw te képp ku ko gis nag yow taxee di tàq na ci yow rek sallallahu alayhi wa sallam gis yonent ay daraja la ci dana ko gëwante gis boo koy di gën a yomb nit dana gëwante nit dana ko gis ci jeneer gisa xol ni rek ba mel yaa ngi koy gis lay daraja jigéen bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ñu dana koy tàmbalee di tas ngay xayaal muy tas dana am xayaal boo xam ne dafa sax dootu dañ saa yu ne rek yaa ngi xayaal mel yaa ngi jëm ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma xamal na xaarif bu jëkkaam su wéyee nag gis ko nag ci bëtam ci lu lu ci lu nelaw rek def daan nekk ci ndax dee sallallahu alayhi wa sallam ñu bëri nett nañ ne gis nañ ko te xëy na boo sëriñ loolu la doon ñaan ndax bu sëriñee bu sëriñee Abul Abbas al-Marsi mooy sëriñam Abul Abbas al-Marsi mooy wax ne su ma xooloon benn yoon comme tu te gis ma yoon dootuma dim sama bopp ci ñee dem aljanna dem sëriñam mu amoon boobu maqaama nag c'est-à-dire amul kéemtaan ci moom la dëkk am jot maqaama sax ñu ne kon nag li boo fekkee ñaan dëgg-dëgg mooy gis yeneen bi ci lu ñu raw ci lu ñu nekkoon jëm yàlla itam nga gis ko ci ñu jëmee réew loolu dana am sallallahu alayhi wa sallam mu daal di tagg kanam ak yeneen bi nag ne kanam la boo xam ne dafa leer rafet lool dana dajeeg xare fekk mu ngay muuñ gannaaw boo xamee ne jàmbaar yëpp a nga njëkkat seen kanam rek xare dana tàng ba ko ne njëkkat kanam yonent moom boo ko xoolee ngay muñ rek sallallahu alayhi wa sallam ak njàmbaaram nga yaari yëf yooyu ñoo jëf ci moom ba nga xam ne xare bi jeexital ci moom du wane du feeñal ci moom jeexital xam nga ne lu xare tàng tàng muy muuñ moom xam nga ne njàmbaar la lu xare tàng tàng nag xar kanam bay gën a rafet di gën a leer kooku moom taar ba sallallahu alayhi wa sallam bu doon jëkk na wax ni mu xàccee kooku ne sellalal sa bakkan ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci discussion yi doxam ndànk la nelawam nga muntu la man nag waral na balaa melal balaa wax loolu mu far melal jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonent daanañ ko melal amoon na ay melalkat ay sa ci la bokkoon ci la bokkoon Hind Abu Alafa ci Abu Hurayra sax ñu bëri ci melalkat yi yonent bi lañ bokkoon sallallahu alayhi wa sallam ñii lañ ko merale woon ñii la koo xam ne dafa gudd ba ñu wax ne njoor la gàtt bi tam bañ ko boole ci ñu gàtt ñu sallallahu alayhi wa sallam dafa digg doomu noonu la góor di rafete sallallahu alayhi wa sallam xar kanamam dafa leer te dafa mel ni weeru baga ay sa ne weeru baga mooy weeru bu ci guddee ñu naan dana fenk yonent bi sol mantoon bu xonq toog may xool weer wi di xool kanam gi wallahi dama xam ni gën a rafet de sallallahu alayhi wa sallam moo koy melal moom Aysata naa gisuñu borom dañ sol mantoon bu xonq mukk ku rafet ni yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam mooy wax naa suñ ci góor bi melaw nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa boo wax bu ñu koy joxe ci lii yéen suuf duñ ko joxe rek. Alfayda FM. xam nga dafa doon xaar ñu doon dog seen loxo ñu taaram yéen suuf suñ gisoon yéen duñ dog seen loxo seen xol la ñu dog de sallallahu alayhi wa sallam leer kanam la ku yëkkati ku bakkan la ku rëy ay bët la ku sotti xëy na ku sotti kas la sallallahu alayhi wa sallam ku dal ci kii yaa ak dënn la ku jot ay loxo la ku jot ay tànk sallallahu alayhi wa sallam kuréel ba mu kuréel la mu ram ñu ngi bi sallallahu alayhi ku rafet ci bëñ su reexee ngay defe la wala nga defe ne la wala nga defe ne <coughs> yuur la ne ndax taaram ba noppi nag mu sala wax nag ne muy nag yéen a ngi ba nga dégg muy xaqataay da nga dégg baatam reem musulaam muy rek sallallahu alayhi wa sallam dox ndànk dox amul lu muy ragal ba tax ko waaxu amul lu muy yaakaar itam ba tax ko waaxu sallallahu alayhi wa sallam nu muy doxee rek lay doxee nit ne raw itam nga doo ko bëgg a gis ñu guddi ñu ñëw lu may nga gis ko muy nelaw doo ko bëgg a gis ñu guddi ñu ñëw lu may nga gis ñu guddi yéen a dem nelaw benn nelaw labal ko déedéet nelaw tuuti jóg julli tuuti nelaw tuuti jóg julli nelaw tuuti jóg julli ñu ne loolu xajat xar rek ñu dem ci jàkka ji sallallahu alayhi wa sallam ma si waxul xëy de lu dul jikkoom na si mu di jëlewul demee jëlewul demee mooy ngelaw li nga xam ne su tawee ba sa ngelaw yi ko topp ci nga xam ne du ànd ak tàngat du ànd ak bënd ngelaw yooyu mooy nasim kooku di ko yonent bi dem sallallahu alayhi wa sallam wala xayra ma yaaw di dund kanamam raw da ko di bër am xam naa ba yaa ngi faqari te bër bu sëpp boo xam ne tuur tuur yaa xob yi yëpp faq nañ na mu war a sottee soo koy xool na mu yàq di gisee bët kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar dafa tegu ci kaw saar ci mbiram yonent wuteeg ku dul moom lu ñu rafet rafet ku dul yonent bi rek moo rafet li ñu def tey ñëpp a ko bokk yàpp wu ko xam dara rek dafa nekk waaye bi rafet na wala rafet na a gën a rafet moo tax tey ba nga xamee ne xam nañ ko teg ci nga kaaj kaaj ko wér dégg nga boo koy xool da ngay xamee rek ne ji bee gën a rafet sax bi tuddee mu ne xaañ xaañ xaañam boobu dafa mujj mel ni aw weer ci asamaan li kanam ji rafet yëpp kanam ji mel ni mel lu mooy ni asamaan waaye xaañ xaañ ba dafa mel ni ni weer rek ci asamaan bi sallallahu naka noonu yonent sallallahu alayhi wa sallam ndax daa xeeñ gëstu te du laal gëstu de karaama googu la doon nëbb moo ko taxoon a bëgg la ko lañ foo ko ñëf mooy daal la ko lañ di nëbb mel ni li bëgg ni ñu def na ndax la ko lañ di ñu daal mooy dañ ci moom waaye su daal la ko lañ boobu lay gën a xeeñ la ko lañ su daa ne raw jigéen ñi day ñëw di sàcc na xam yi di ko def ci seen butéeli la ko lañ ñi day su yeewoo ne lii daal la ñu ne ko sa ñaxaw yi dañuy jël na mu gën a neex gëtt bi sallallahu alayhi wa sallam ba loolu amee nag xaañ xaañ ko bi ko xaañ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ربنا في Alfayda FM. xëy na naa góor axtaar yooyu danañu daawoo suñu xar bi ci xare yonent bi ñëwal ñoom nag sallallahu alayhi wa sallam ci xare bëtu Makka war naaru góor yoo xam ne balaa ngay dugg rek ba dañu demee ci soog a faral wala ñu xay ni ay ñu tax ñu am fas yéene ko ko yàlla ay ma baabu ñu wax ak ñu ngi xarawe xarawe yi fas yéene ci ngi xarawe ak lañ ka bañal ko rek xare ko ma kan rek yéen ñu ñu na leen sallallahu alayhi wa sallam bañ leen dàqe ci xam ndax bu ñu xare ko ñu ñu dem ay ñu ngi ko gannaaw ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg Makka biir Kaaba bi moo saaba bi ñu ngi la këri xadi ñu ngi dugg rek ñu ngi waxee yonent bi ñu amul sotti lim dee rek ñu am sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi xeewoo eh, nattee leen ko saaba yëpp parce que booba na mën a Makka ñu ne ko nañ dem rek ndax yàlla may ñu umra de yonent bi daal di waaj sallallahu alayhi wa sallam ànd ak saabaam yi junne ñeenti téeméer wala junne juróomi téeméer ñëw ba ci Hudaybiya Quraysh yëpp ko Quraysh yëpp ne yonent bi ñëw na ba Hudaybiya dafa bëgg dugg ci Makka te suñ ko seetaanee ñu dugg Makka man yaaram dañuy waxtaane ne Muhammad dugg na Makka ci noteel te mooy li nga xam ne moom du am mukk duñ ko nangu ñu yónnee ñu yónnee yaatu yaatu yónneen su dugg Makka de yónneen su doon déggee ne ñu ngi yëngatu dugg waaye dugg Makka mu wax ne tos ko def Quraysh xare yi ñëw na leen. Alfayda FM. daa amatuñ benn taxawaay léegi ñu ñëpp a jóoti jëm ci xare dañ ne Omar ibn Khattab kay demal mu Makka soo demee na leen ma xare dama ñëw rek pour màggal néegam yàlla bi su ma ñëwee bépp sart boo xam ne dara ñu ko te xam ne màggal ndegam yàlla baa ngi ci ñoŋal bi rek yaa ngi ci rek dinaa ko nangoonte ñoom de Omar ibn Khattab ne ko ñun Usmaan ñu nga faam ndax a a bëri mbokk te man Quraysh sax xam nañ li ma tiise ci ñoom ak ni ma doon bañ buñ la rus ñu ñu ngi Usmaan day gën a am jël ñu ne su ma daal di yebal Seydina Ousmane boole ko fukki nit jox ko albaaw juróom ne ko demal ca Makka ñu leen ko ngi xëccee di jëm ci xare xare ñu ñàkk na leen ngi laa yëfi xare man fukki moo xare ñëw naa rek pour ma demee ba yàlla bi bu ma ñëwee bépp bépp sart boo xam ne sartoo nañ man te nii nga màggal ne yàlla bi nekk ci ñoŋal seen garab nekk ci rek maa ko nangu ñu ne weer yaa ngi yonent di dugg di waxtaan ñu ne Muhammad dugg na Makka ci noteel looloo fa saa am nag ñoo ko def Quraysh daal di yëngatu daal di seen waxambaane yi daal di ñëw ak seen i gannaay daanu ci xare yonent yi sallallahu alayhi wa sallam di xeex xaat ñoom ñu ngi juróom-ñett fukk ñoom ñëpp ñu xeex leen ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bàyyi leen ne man ñoom ngir xale ko ñu ngi moom la war a wax naa wala ñu ko faay di yoon ku yaay yooyu ñoom ñu ngi bët bu makkata yàlla dafa war a nag pour bëgg jàmm xaaye na loolu bëggoon a xeex yàlla joxu leen kattan ñu mën a xeex yonent mi am kattan moom yàlla xiiru ko ci xeex rek tey ci bàyyi na leen ñu dem ba loolu amee nag Ousmane mu ngi yónnee woon dég-dég yi jaxasoo ñu ne ko Ousmane Quraysh rey nañ ko sax mu ne Quraysh rey Ousmane ñu ne waaw mu ne géñ naa ci ci wàcce ci man téere bi géñ naa ci ci amee sama bakkan bi dugg nañ Makka ah, Makka rey nañ Ousmane du ma ñibbi Medina mukk da tëj ba Makka ñu leen ko def ah Makka ko def nag Quraysh yëngatu Urwata ibn Mas'ud Saqafi mooy buuru Taayif moom la ñuy wax ci laaya ji naa lu tax rek yàlla wàcce alquran ci kenn ci ñaar ñu mag ñi ñaar ñu mag ñi mooy kan Abu Jahl wali ibn Mughira ca Makka wala Urwata ibn Mas'ud Saqafi ca Taayif ñoo ñoo mag ci ñoom mag ci yàlla ak mag ci ñoom du benn naka ko def Urwata ibn Mas'ud ñoo ne leen Quraysh nangu leen sama ndigal tey te bés bu dul mooy sama ndigal bu leen dafa ñu leen ci dara te ñu ngi leen dama dem ba gis ko ba dellu fi ñu ne ko loolu ñaan na la xaw ma tey jii ma soo dal di waar ñëw fekk ci di jëw day dee fekk na bés bi keroog mu xëy rek ñu soobati doomu mbaayam moo moomee wattu yeneen bi sa keroog dem mu ngi tax ba ci jaaseem taxaw ci yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa dañuy wattu yonent wala yaa xëy na ne waxtu bi booba balaa bi ak yéen a ngi lay waxal ñu ko daa wattu ne leen dem ngeen ko waxaat ne duma wattu wa sallam yaaram buur yaaram su waxanteeg buur yaaram naka moom te wax ñu dëgër ci moom dafa ñëw jàpp ci fikki moom soo ko wax li mu koy wax de war wata jàpp ne buur la yonent buur la mu bëgg ñëw ba tey ci turu yonent bi sa ko wax li mu koy wax ba nga xam ne tàllal na loxoom rek mu xëy rek ni soobati dal di fab jaaseem fab dëkk ko ba ñu ne ko booy laal ci turu yonent bi rek na def ko baat mu ne kan ñu ne ko mu xëy rek ni soobati farak mu ne xurit kët bi xam ne ba léegi maa ngi fay xaq jaawur yi nga gàddu woon ak góom yi nga bóomoon ak bat yi nga legoon nga dina fay nii mu ne ko xaw ma ca dara waaye doyul daal ci mu yonent bi rek ma dagg sa baat laa wax xool doy lu ma sax xool xool xool yonent bi xool mbooloo mi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaa du yéen a ñoom nga yaakaar ak ñoom koy xool dawal ci rek Abubakar ne ko am suuf bi faral laa ko Sidina Abubakar saaga ko saaga boo xam ne saaga yu ndawal saaga yu bàyyi yàlla am jëla saaga saaga yoo xam ne kenn mënu ko wax ci wala lu ñaaw mu ne ci wax wax ci kan la mu ne ko Aboubacar Sadiq mu ne ah waroon naa doon keneen ku ma yow Aboubacar Sadiq la lebaloon na ma teraanga te fayegu ma ko yaaram soo defalee soo nawle teraanga te fayegu la ko boo ko doon diirit di fayu la fayu la teraanga ñu ko defaloon mu ne Babacar ma sa kuy ji teraanga fayu ko moo tax man la tontoon te ñoo ñu waaye li mu ne daal rafet na xool xool xool jëriñu na Makka ne leen xare waa Guinée gisuñu ko lu seen xal xare yooyu ne leen moom suñu Kaysar nañ ko màggale dem naa Paris gis naa Kisra nañ ko màggale waaye mosuma gis buur buur lu jëm màggal ñun ñu ko gis sama bët suy wax ñëpp dañuy mel ni picc tag tag ci seen bopp su xàggalee lu mu digle rek ñoom ñëpp ñu jëkkante ko buy jàpp ñu rayante ñu yàpp la kuy ca barkeelu su taxlee ñu xaw xaw tax ñu di ca barkeelu ko duggee waaw ñu ne ko yow ñoom ñoom na ragal dal di war dal di nar war juróomi hijjikaay soorin ñaamrin fekk demoon na tukki romb woon di jiw dëgg ya di waxanteeg moom ba mu waxanteeg moom wax daal waxi jàmm moom yooyu ca waa Makka waxanteeg ñoom waa Makka yi ne ko yow li ci bu suuf ka delul fekk jëkkër ko yow ni ku ñu wax am na Kirist benn naafeq la woon yonent ne kooku di wax ak moom rek borom yaari kanam la li xawalaat suway ni na amrin yonent su bëgg nañ jàmm nag léegi bi nga demee suway ni na amrin rek nga ne ñun jàmm day dox mu nag booyam ñu jëriñ ñu xarit yëpp ngeen ko rangale sama diggante suway ni na amrin ndax ci biir la bokk ne jëriñ rek lañ màggal ci àdduna fekk na yonent bi boppam ñu yaame juróom benn fukki juróom yoo xam ne daf ko bëgg a hadis ci ci boppam ñu ko def ku ne sax na ay hadiyam ñu yaame ne juróom yi diggante moom yonent ndam ba ci seen borom juróom na rek moom xaw na si wa sallam yonent ne ko toskare Quraysh xale yi ñoom leen léegi lañ juboo ñu tëral sart bépp sart bu ñu tëral muy màggal yàlla ak muy wet yàlla yi tey mosal deret yi ànd naa ci waaye bu ñu xëccee bu ñu xëccee xare seen seen njëriñ na ci jóge séeru na ko léegi daal ñu jóge nga wàññeeku benn yi dégg na mooy mat dugg na màkk soo wàññeekoo nga déglu nga déglu fii boo boo ñëwee ba doon yaa ngi ñëw ñun dañuy génn Makka dem nekk ci doj yi ak xunt yi bala fi ñetti fan ba nga def li ngay def ba dem ndax ñun bëggatuñu la ko yow waaye daal nga dugg Makka ji ma doon loolu la bañ ci diggante bi nag loolu ci ndem ci téere ne doo xaax ak ñun fii fukki at ñun duñ xaax ak te képp ku bàyyeekoo ci ñun jublu si ci yow. da nga ko delloo si ñun ku bàyyeekoo ci yow ñun ko dina fekk si ñun da nga ñu ko bàyyee yow ñu ne ñu ne waaye jigéen bokku ci ñu daal di boobu ba ñuy bind téere jubóo boobu Seydina Ali moo doon bind yonent na ko bindal lii la yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xëy na soo ñoo ko faral yonent bi nga def baatab rasulullah yi kooku duñ ko nangu bindal rek Muhammad ibn Abdullah yonent ne man de yonent bu Yàlla laa waaye it doomi Abdullah laa su fekkee bañ ngeen ne weddi ngeen ne rasulullah yi bind leen Muhammad ibn Abdullah Yusuf ibn Ali faral rasulullah yi te ko bind rek Muhammad ibn Abdullah ibn Ali ne ko xaw ma ban loxo koy far waaye du loxo Ali la bañ boobu la suuf yaa ngi koy jàppale teggin moo gën topp ndigal topp adab moo gën topp ndigal am liñ ko digaloon mooy ni far rasulullah waaye loolu gisul ni adab moo tax mu topp adab bañ ni di far rasulullah ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko laaj baatab rasulullah yi fi mu toll ci kayit bi yonent mën nga jàng li nga xam wuti yéen te mu war ko ñaari baat yi nga xam ne mooy rasulullah yi mu far ko loxoom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ya ko bindal mooy man ibn Abdullah ya ko ne lii wee lii ma dal dama ko dal dal na ko ba mu dëggee yéen fii naa maa wee ko bind amir ñoom ñu ko mukk bindal Ali ibn Abi Talib rek la ko yonent waxoon sallallahu alayhi wa sallam te fekk mu amir ñoom ñu xakkal bay bindal dee téere boobu rek fekk na banu isaata ñoom sopp yonent lañ ñoom ñu tàpp ci yonent yi ñoo bu yonent yi xeex ak moom dañ xeex la ko lépp lu ko war ñoom danañ ko ci dimbale ñoom itam dañuy xeex seen bokk ba ñu bokk bi ñu taxalit ñoom ñu dafa tàpp ci Quraysh naa ko def ñooñu dañoo koy suñu ñu taax la lan ñooñu bu taax xoree si dimbal leen amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu yooyu yëpp Sidina Omar mer lool dal di ñëwaat ak Sidina Abubakar ne ko ñu ñëw ci dëgg buñ dundee buñ dee mu ne ko ana ah kay mu ne ñun ku dee ñun dem aljanna ñoom ku dee ñoom dem safara mu ne waaw mu ne ko lu tax jubóo gi nag parti bi nga xam ne moo féete suuf yëpp ñun lañ ko féetale Aboubacar ne ko Omar sa xolab dëgalab yonent rek laa sant yonent bi du may ndigal du may ndigal ak yàlla lépp lu def yàlla ko sant ya Sidina Omar ak si yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yonent yàlla yoo xalaat ñëw na ci dëgg yi ñu dundee ñu dee mu ne ah kay ñu ne ci dëgg yi ñu dundee ñu dee mu ne xanaa du ku dee ci yéen dem aljanna ku dee ci yéen dem safara mu ne ah kay mu ne ko lu tax nag ci léegi parce que ci dëgg ci rek ñu ko fee mu ne ko Omar man yonent yàlla laa def moom mooy ndigal yàlla ba lu dëppoo la baax a kartan doon Omar de ci ginnaaw Omar dem toog sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu sart yi ko teg yëpp fekk boobu moom moo leen gën a jub ku jébbalu ñu delloo ko Makka ku xas lislaam sax ci bu demee Makka di soppe soppe bu nekk ci biir moom la ñuy jub dugg fa yeneen soppe rek bu leen ñu dara lislaam jigéen lislaam tëral na ne xéefar war na soo julit yonent bañ na ne julit moom boo jigéen naka ko def yonent bi nag yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ne léegi nañ wàññeeku te nakk na lëg ay hadiyam tawat rek ñu doon waar ni su mujj na de wax na ko ñu ñu ne fekk lu mës ba am waxaat ko ñu ñu ne fekk ñu dugg ci ci bargameen de umu salama ko jabaram la ànd lool ñett ji ñu wax naa leen ne lañ lëg seen hadiyam tawat ñoo ñoo ko dellu Medina waaye ñëpp a nga toog te bu ku nekk si biir bañ toog ba ngir naqat mu ne ko da ngay jéem rek jubal ci sama xarit rek nga lëkk soo ko war mu war la rek loo def rek moom la ñuy def moo tax ñu naan ndigalal ji ñoom ne jibi amee nag yeneen ko rek ñàkk dellu si Madina Abu Bakr daawu Suhayr ibn ki nga xam ne moo doon jullee ba tuuram ñu ne ñu dal di ñëw jënd ci yéen a sallallahu ko ci kii lañ koy tàmbali wala mu ko delloo defe na na ko yóbbu mu na ko ñàkkal njëriñ bi mu war a yónnee ñu Seydina nag yéen a ngi daal di woote jaayante ne kon nag bu la ñuy di mukk te Seydina Màkka ci seen seen kaw daal di tàll ñaari loxo góor benn la ko benn ma ne Ousmane jaayante na bii loxo loxo yonent la bii loxo loxo Usmaan la ba Usmaan am na foofu loo xam ne kenn mësu ko am na way jëkk way mujj loxo bi yonent bu wax ba nekk loxoom sallallahu alayhi wa sallam mas ko def takk Usmaan itam def na xar baax ba mu demee Makka ñu ne ko Muhammad di fi dugg mukk waaye yow may nañ la wëral kaaba ñu def lu la neex waaye Muhammad moom di fi dugg mu ne kaaba ba ñu xaaw yonent ba ma jëfaale du ma ko jege du ma ko jege sax loolu la ko yàlla loxoom yonent ba di loxoom bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na bu day bi yaa yaatam juróom-ñaareel juróom-ñetti weer lañ ko teg rek yaatam juróom-ñetteel ku bokk ci Banu Bakr ñu waa ñu taxlu rey ku bokk ci xusaata yi nga xam ne ñu faral ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu daal di ñëw ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj wala de ne ko su fekkoon ne Quraysh ñoo boom ci yow ñun de dinañ la dimbale léegi nag Quraysh boom lañ ci ñun ndax da nga dimbale yow yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne su ma leen dimbale yàlla bu ma yàlla dimbale fi dinaa leen dimbale bu fekkee man kenn sax maa ànd de xare daal na ñëw bu ñëw su fekkee xare demoon ndax saata ñu song taxlib ñu song Banu Bakri Quraysh daañu daal di ñëw ànd ak Banu Bakri xeex ak yonent yonent sax def la jëm fële takk xaram jëm Makka rek ñoo ko jeexal xare bu mu nas bi waaj dafay def koy nëbb su fekkee fii dafa soo xare laaj naan waaye ci boor bi ngi di réeram kenn yoonam kenn dañ koo xam te waxtu la jot di yonent dafa daa wax ne ku nëbb sa mbir ku nëbb rek nag waaye li mu ne tarab makka pour ñëw bu la joxee loxo rek ne la waajal kat makka laa jëm siis naa waaw kar ñu gën a xam góotam dafa dem ca tool rek dégg ñu ñu waxtaan ñu ne ñu ñu waaj pare pour dem makka mu daal di ci fexe daal di ñëw ci ne doomam ndeyaan sa ko jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma dégg na yonent dafa waaj pare pour dem makka waaw mu ne ko nekk ba mu ñëw nga laaj ko su la ko waxee rek nga xam ne xam na bëggutoon natt li mbootam jëkkëram ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko jox loxo rek ne ko Babacar waajal kat Makka laa jëm ah ñu daal di waaj ne seen xare waaye terewul yonent dafay ñaan naa yàlla yàlla na ma jàppal natt yi Makka ak seeni bët ba nga di seen yoon foo xam ne toq ci seen xel Makka itam bañ xamee ne seen jëñoo yi def nañ gannaawam te buñ xeexee yonent moo leen dimbale te léegi ñu ngi jub te yonent xeex ak ñoom ñu daal di ne nañ yonent ci yonent rek xeesala xeesalaat jubóo gi jubóo yonent moom sart yu ko neex na ko sart lépp lu mu bëgg a sart ci sart yu jëkk yee na ko sart ni waaye daal ñu xeex moom mukk loolu ñu ngi ci suñu jàmm ñu ne ko ñu ne ñu ne ñu ne Abu Sufyaan di defoon buur bi Abu Sufyaan daal parce que dinañu ñëw fekk si yeneen di Madina de ba mu xàttee mën da gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu am ay fan yoo gis ñu Abubakar ne ko dama dégg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg a xare yi ak ñoom Makka ma bëggoon la wax ci rek ñu xeexewaat suñu jubóo yi nga xam ne jubóo nañ ko jóg day ya Abubakar ne ko Abu Sufyaan naka lañ fa def yeneen si biir mbooloo ñu ànd ak moom amul kenn ku ko ci jox ndigal moom moo joxe ndigal de mu ñëw ci Sidina Omar na ko Omar ibn Xattaab loolu kay lépp lu yàqu defar ko kenn gënu la jaaxee moo doon ñu dimbale ba yeneen fexe salaat bi xam ne jiwoo nañ ko Sidina Omar na ko seen diggante yeneen fi lépp di jiwoo lu ca xees yàlla na ko yàlla rappal lu ca rapp yàlla na ko yàlla dagg yàlla bu ñu amati jiwoo yeneen fi mukk seen biir biir mu ne ko yàlla na yàlla xewlu bon Omar ibn Khattab yaa bon ci ndax Omar mu ne ko yàlla bu ngeen xamati ci boobu yéen a sallallahu alayhi wa sallam lu ci xees yàlla na ko yàlla màggatal mu ñëw ci Sidina Ali ne ko Ali jógal waxal ci yeneen fi ñu weesawaat suñ ci boobu Sidina Ali di ko xoolal di waxul ko dara mu ne waxal Fatimata lim doon ci yéen mooy sangam kuréel yëpp tey na wax ci baayam rek bu mu xeex ak Makka rek sidina Ali ko mu ne Asan ak Useyni lii ko doggone ñoo sa ngëb ñëpp waaye yabalam sa sa doom yi dem ci seen maam bu ñu xeex bu ñu wax ko ne bu ñu xeex ak Quraysh rek boobu daal xeex mu ci dara mu ne ko ñuy gone la ñu dugg ci mbir ne ko Abu Sufyaan na laa ala biir yéen itam mbooloo mi ànd ak moom dañ topp ci moom rek di ko laaj ndigal amul a ku koy jox ndigal noppalul mu ne ko loo ma xamal nag li ma a def muy jëriñ waa Makka tey mu ne ko li ma la xamal mu ne ko nga taxaw ci buntu jàkka ji rek ne nga xamal naa jubóo sama diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek te dem ñibbi ah mu ne ko loolu dama jëriñ mu ne ko yaakaaruma ne dama jëriñ waaye a am lu may doyoo mu ne ba bi julli tisbaar mu taxaw ci buntu Kuraysi ak Muhammad xeexalaat naa ko fukki at ci kanam di xeex te hmm, yaakaar naa ne Kuraysi lépp lu ma ci dogal kenn ku ca bokk du ko du ko tettire yeneen te ñu koy xool lii mu rek naa dof bi waa wax loolu waa Abu Sufyaan daal di takk juróomi bi ba mu ñëwee Hind jabaram na ko doo dikkee mu nekk li ko mu ne ko cëb dikkee dara fu xeet na fa yónni yaa ci alfayda stade la fa mu dem lam doon dox xamut ca ndam yaa cee yaa yooyu jëkk Muhammad yi sa wax dafa tolloo waxi golo sax ñoom dañuy ma kala wax jabar ja ko taxal naa ko def ba mu ñibbee rek la yeneen fekk xare ci Makka ci fukki nit ay xarekat wala fukki junni ñaar fekk na ca fan yooya benn mbalala bani haafim boo xam ne ci jigéen ñi bon ñi la bokkoon ca Makka jigéen ñi def seen bopp bitig rek góor gu bëgg ñëw ci la bokkoon ci mbalala bani haafim la bokkoon ak ñu moomee lu ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw gane si yonent yonent ne ko mu a ko tuufa ma ne ko garaaw rafet la ñëw di wut yow lu ma am yéen su ma taane sa far ya ba ngay tuuf mu a ko ñëpp rek nga leen de sama far yëpp dee nañ si dagara amatuma dara moo tax ma ñëw yorewaan si la de yéen ko sabax ko lu sare la dugub bi xaati bi dinaa di bantaata saala si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal ne ko dama laa bëgg a fay liñ door nga yóbbu ma benn leetar rek joxal ma ko waa Makka mu ne ko loo leen di bind mu ne ko dama leen di wax ni yonente ni ñoo xare seen yéen te li nga am xare boo xam ne ñu ngi bëri ba mel ni du si géej wala ñu ngi bëri ba mel ni lëndama guddi te boo àndoon moom kenn rek xare ji yàlla dana ko dimbale sax te boo àndee xare bu daw yi mu ne ko loolu du wurig sa diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom yéefar ba mu ne ko déedéet damay nax ku rek si ci noonu rek su ko defee ñu defe ne seen xarit laa ñu sàmmal ma sama alal sama njaboot yi ma ko bàyyi loolu rek laa ci jublu te du wàññi dara du tere yàlla gën a dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw si ñu di ko wax ne ko man daal balaa ma nangoo jël leetar bi nga tàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko nax ba ndaw sa nangu jël leetar ba lépp waale ko dem nag ba ca yoon rawdatu xaaf wala toolu rek jibril wàcc wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko as daw ngay jëm Makka mu nga amee leetar bu ñëtul waa Makka sa mbir de yéen a ngi sabal fii dina ànd yow la sot nga leen dem leen dab ndaw soosu ca roba bu xaar nangu leetar ba nga xam ne ñu di ko yóbbul xale si ñu yëgal sama mbir de ne ko ko def mu dal di ko dab jot ko ca fa yéen a waxoon sallallahu alayhi wa sallam ñu ko leetar bu ñu amee woon leetar ñu si ko dara ko ñu gis Ibn Ali dal di génne jaasi yi ne ko yonent bi fan te duñ ko fan la génne leetar bi léegi wala ndogu ñu la def la yaram ne léegi yéen yaram nag lu mu fees na mu loolu mu ne ko far leen ma nag ma génne leetar bi ñu fari ko nag mu fas li tam génne leetar ba yonent bi Ibn Ali yonent bi leetar bi sallallahu alayhi wa sallam jàng mu ngi bàyyi ko ci xaati bi naatu bantaata jëm ci Quraysh yéen yéen yonente ñu ñëw ak xare boo xam ñu ngi bëri ba mel ni ñu ngi bëri ba mel ni lëndëm ak dibine te bu àndoon moom kenn sax xare yàlla dina ko dimbale rawatina nag ba nga xamee ne mu nga ànd ak ndambalum xare bi mu ne xaatim ku bind leetar bi mu ne ko man waaye gën naa ci yàlla du kéefar gannaaw bu ma du naa fekk ci man du du la du jéem a yàq sa mbir du bëgg dafay nit dama dafa dafa fekk rek ñëw nit koo xam ne man dañ maa sof ci Quraysh sa bokkuma ci aw ma askan te ñëpp gàddaay nañ daa fa seen alal ak seen njaboot bàyyi fa seen mbokk ñu di leen sàmmal lañ fa bàyyi ma ne ma fa mbokk ma ne woon suma bindee leetar bii dana am xëlëwe waa Quraysh bi nañ ma xëlu ba sàmmal ma sama alal sa biya wàññi daa yàlla xam nga ne lii rek laa digal ma ma dog baatam rek ñu mu tëb na yeneen si Sidina Omar ndax xamuloo ne ñu fekkoon Badar ànd ak man yàlla daf leen a yërëm na leen yéen def leen lu leen neex baal naa leen Sidina Omar daal di sotti yaram yi ne yàlla ak yeneen sama xam ba léegi amee nag yeneen daal di takk xaram nag daal di jëmal si Makka ñëw lu baax ci ci yaat yi Fatimata fu xëy war a dugg Makka Abu Sufyaan xamul lu xew guddi keroog la nga baax si naa bi mu gàddaay Makka ni mu ngi fekk fi yonent Madina ba mu ñëwee ba foofu mu daje fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne Abbas foo jëm mu ne ko damay gàddaay sa fekk yonent ya yàlla kam yonentam ne mu ne ko yow de waaye ñu jëm gàddaay kar yi ñi nga xam ne maa ngi leen yonent yi gàddaay jeex na suba ma toj Makka noonu Abbas génn di doxantu te fekk Abdou Soufiane buur bi ñu xareeti Abdou Soufiane a ngi ànd ak ay maramam doon rëbbi seen safara yi nag te teewul bi ñu ñaar teewul foofu nga ne xare bi yëpp lañ dem taxani junne bu nekk seen junne fay matt yee nañ ko jóor benn jóor taal ko benn taal muy fukki taal yoo xam ne taal bu nekk fukk junne fay matt lañ ko xamandoo électricité sax mu dem nañu koo taxaw ci jaziratul arab seen bi seen junne wala Abdou Soufiane seen safara yi nag. te xamu ko woon ci loolu jaaxal ko mu ñëw di seet safara yu yàlla la fekk Abbas ne Abbas safara yu may seen safara lan la ah mu ne xanaa safara nganan la rek mu ne ko safara nganan la du mel noonu mu ne xëy na safara lën la mu ne ko safara lën day noonu céet mu ne ko day noonu ngëñ mu ne ko day noonu yaramam lañ seen fukki safara buñ ko jëf rek mu ne ko du noonu Abu Abbas ak Aliou foofu ko defee Abu Sufyaan yonent Yàlla Muhammad ñëw na gis ko ak xare boo xam ne dara mënu ko tëkku safara si si yéen saabab xare bi rek la mu ne ko loo ma xamal nag bon man ma war a def mu ne ko lu ngeen ma toggale ci baax la am bii kenn la rey ba nga àgg ca moom nga jébbalu loo def lu mu ne loolu rek yow dee nga mu ne ko togg ma daal ci baax la ñu dem Abbas togg ko ci baax la ñu romb dana taal ci war baax la yonent bi kana Abbas ibnu Abdul Mutalib Abbas bay yonent war baax la yonent la baax taal bu romb rek ñu wax loolu bare bu Sidina Umar ibnu Xattaab ci war baax la yonent bi kana Abbas bay ibnu Abdul Mutalib Abbas bay yonent war baax la yonent dara ñëw waaye ci addis yi yàlla na yàlla baa ngi bal di fab jaase yi daw jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko seen nga Omar ma lay cal dafay tàggoo ji rek pour laaj ndigal pour dog baat bi amul leneen lu muy dox ñoom duñ def dara lu wér leen yonent bi digal rek waaye rey la rek lu nga jëdd rek yow dee nga rek mu ne ko yëngal wax rek laa ñuy def mu ngi fa Omar jëf ñu daal di àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sidna Omar dañu ne gareet yonent yàlla noonu yàlla baa ngi ab Abu Sufyaan jox ma ndigal ma dog baatam léegi Abbas ne jëm ngeen ci biti laa léegi yonent bi kenn du fi dugg te sax li ko mbokkam xam nga lu ngeen di def nii te ku ci Abu Sufyaan doon sa mbokk tey doo bëgg mu dee doo bëgg mu rey ko jëm leen laa jëm leen man dama soxla yonent bi jëm leen ñu jëm yonent bi ne Abu Sufyaan ba léegi xam nga loolu yàlla jurul yàlla xamul mu ne ko loolu daal moom maa ngi koy bëgg a ndax daal li ma def lépp mujje nii ngeen ni mujje beneen yàlla amoon lii ma dal lu ma dal xam naa ne daal beneen yàlla amul bu mooy ko yàlla bi mu ne ko abi suryaan ba léegi mbëggeel di rey